Salut, salut, salut, salut la familia. Ah. Salut, salut. Merci, merci qui Double like, merci beaucoup. Nous demain les gars, comment ça va, ça va? Mr. Shake, là, Mr. Shake, là. Voilà. Live. New York. Başka bir kültürümüz yok vegan. Şekerlerim bi am ngi Brooklyn New York gars yi ñëw leen ñu eggale waxtaan bi ci Ousmane Sonko la deuxième vague la defet cuisante la défaite cuisante de l'APR waa APR ñu ngi génn waa APR ñu ngi yuuxu ndeysaan waa affaire ruus nañu waa affaire tiit nañu jaajëf Madou Ndiaye oh ndeysaan dama leen yërëm waa APR ndeysaan c'est pitié de oh APR seen wax bu bëri ji oh seen coow lu bëri li ndeysaan dañu yaakaaroon ne dañoo am doole ndeysaan Macky Sall tas seen yaakaar

kañ lay am kañ la ñuy déloger Macky Sall parce que gis naa activiste yu bëri yàkkamti yu mel ne kayis foofu dañu mer ton dafa mer euh, kii dafa mer Mame Sène parce que ñoom dañu bëggoon ñu jàpp Sonko kayis foofu nee na Macky Sall waruloon bàyyi Sonko <laughs> dafa bëggoon ñu jàpp Sonko trois jours comme ça dëkk bi tàkk non kayis loolu sax wóorul. Sonko moom wóorul mu nekk ci loxo Macky Sall dëkk bi di tàkk wóorul waaw waa APR nag vraiment yéen defe naa kenn waxul ci ñoom mais il ñu def analise ci ñoom pour wan leen ne man seen conférence de presse bi ma seetaan Ousmane Noël Dieng ndeysaan gisuñu fa Seydou Guèye bii paa de gisuñu fa Seydou Guèye bii paa de gisuñu fa Diouf Sarr ndeysaan la queue entre les jambes wa gars like len 59 personnes 6 like dafa ndaw il faut ngeen di like ñu gëna bëri ñu décortiquer situation bi wax len li tax Sonko du seen morom lu tax Sonko ëpp len doole lan mo tax APR sen sen yaakar tas parce que démb kat yaakaron nañ ni kenn du genn mel ni maître ala djouf Diouf ndeysaan xam mi ngi saga rek xamna mi ngi nan Macky Sall xat la lu tax mu bayyi Sonko waru koon bayyi Maître El Hadji Diouf gis ma ko waaye xam naa ne xol bi bon na xam naa mi ngi saaga mi ngi yuuxu mi ngi tëb di dal Adji Sarr gis ma ko waaye xam naa ne découragé na yàkkamti ñu toroxal Sonko te Sonko kenn mënu ko toroxal xam nga ndeysaan ba ma leen seetaanee waa APR ndeysaan ñu def seen conférence presse mais ndeysaan boo xool seen kanam Ousmane Noël Dieng bu xoolee kanam bi yaakaar bu tas la ñu am parce que dañoo gis ñu musul gis dañoo gis doole Ousmane Sonko doole Barthélemy Dias xale yi génn gunge leen dem ba camp Abdou Dias foofu def naa ay militaire fa nekk mais xale yi faale wuñ sax militaire bu duloon bu duloon bu duloon Khalifa bu duloon Khalifa Sall xale yi foofu la ñuy toog jàmbarloog militaire léegi nag waa APR ndeysaan oh ñu ngi triste ñun ñoo fi nekkoon di jubilé dem

en juin bi ñoo fa nekk waaw d' accord Ablaye Wade dafay Ablaye Wade moo fi nekkoon Gaston mi ngi nii di préparé pour boppam ma ne ko Gaston am nga ful la de noonu la de Gaston Mbengue noonu la de waaw gars yéen a ngi may dégg bu baax wala son bi baaxul son bi war na baax parce que defuma ko bluetooth son bi baax na n' est ce pas vous cent son bi son bi war na baax defuma ko bluetooth confirmé leen ma ne son de baax am na ko fi bind léegi wax sànq ngelaw dafa am tuuti ngelaw nag mais c'est bon kay waaw oh waa affaire yërëm naa leen vraiment démb c'était c'était dañoo triste quoi oh ils étaient tristes Ousmane Noël Dieng moo fi génnoon di sóob di wax way leen boo leen génnee dañuy ñuy yëpp yëf suñuy nit oh mais nga xool leen gars yi gis ngeen conférence de presse Ousmane Noël Dieng ndeysaan ñuy wax ndeysaan gars yi di tàcc mais tàcc yi sax ndeysaan dañoo géey ñoo bon dañu yaakaaroon ne dafa ay boy yuy def skate skate yi ñoom dañu yaakaaroon ne ndeysaan Macky Sall da leen di jox victoire waaye Ousmane Sonko moo ñu jox di victoire ak Barthélémy ak Malick Gakou ñoo ñu jox victoire gars yi gën leen laaj gën leen partagé Ousmane Noël Dieng ndeysaan ñu xool ko mu ngi triste oh oh ba pare ñu bëgg wax ne ñun kenn génnul ak a iñaan ma ne ko kon yéen bu nit ñi génnoon foo leen jëm am na ku ma bind sànq sama benn euh, euh, sama benn vidéo am ku commenté mu ne yéen façon kenn génnul 400 personnes rek mu génn ma ne ko waa ah, léegi 400 personnes rek génn Macky ragal 400 personnes bàyyi Sonko xam nga ne li génn ëpp na 400 personnes te ñun soxlawuñu ñu ñuy génn ñii ñu ngi woon ci VDM bi ñu ñi ngi woon ñu ñu ñi ngi woon Bignona dañ doon xaar rek gis nga gis nga Khalifa Sall ba mu paree ba mu paree. <laughs> ba man affaire bi ay ree ma def sax Khalifa Sall dafa pare dafa pare conférence de presse 15 minutes après <laughs> ñu ne nii waa Sénégal gaawantu rapidement xam nga ñooñu léegi dañ leen di jënd ay Sénégal ay Sénéweb ñoom ñooy bind ñu ne bàyyi nañ Sonko bàyyi nañ 15 minutes dafa maximum 20 minutes gars yi bàyyi leen. yaay lay la laa Sonko bëri doole ay waay Ousmane Sonko doole lii de fii rek la am yow nga nga wax ne nit dañ ko arrêté.

Sonko dañ ko ci tank te Sonko mi ngi pour wax ne xeex bi te la ak suba imam Babacar Ndiaye ba mu mais i kon ñu fi dafa continuer suba Sonko ba mu déggo sax mu wax waxu élection wax wax waxu dara parce que Khalif généraux ñoo déclenché dañuy gars il faut ngeen comprendre lool dañuy nekk suuf di woté di woté di parce que dañu yaakaaroon ne dañ Sonko dee na kenn kenn ñaawul waaw dañu yaakaaroon ne Macky Sall day broyé Sonko tëkku yum fi tëkku mu may la huit mois mars ba novembre ñaata la ah mars ba novembre huit mois la huit mois ñu may la ko ngay préparé Macky Sall nee nga jënd nga ay blindé nee nga am nga ay ay policiers yi gis nga yëre ñu leen solo léegi boo leen sànnee sax du la dal nee nga nee nga aussi euh, comment dirais-je Euh, am nga ay char de combat ah am nga lacrymogène pour yow pare nga am nga ay fital am nga lépp jël nga ay nervi dugal nga leen ci police bi dugal nga leen ci gendarme ñun dañu yaakaaroon ne démb suba démb bu ñu ñëwee ah loolu rek dina doy te yemu leen fa waa APR ne ñoom seen bopp dañuy mobiliser Ousmane Noël Dieng dañuy mobiliser Daara Thiam dañuy mobiliser Maître El Hadj Diouf ne ku génn ñu ku fi lappi lappi ñu rëq sa ndigg noonu la ko waxee TFM ku fi lappi lappi ñu rek sa ndig loolu la met alaaj bu wax ndeysaan ah Seydou Gueye génn di ngand ngandalu Diouf Sarr Diouf Sarr ana mu Diouf Sarr démb lu tax ñëwul ci conférence de presse bi ana Seydou Gueye porte parole lu tax ñëwul ci conférence de presse bi tappet yu bon yi ana Diatara waaw kay merci tapet yi tapetu xaraam yi tapet cim yéen doo leen rus sax boo leen génnoon rek ñu ñu defal leen affaire barki rasool laay Ousmane Sonko wax na ko parce que bu affaire bu fanaanoon bu fanaanoon dinañ leen dinañ leen làpp dinañ leen duma ñu bëri nag ñu ngi kaas ñu bëri ñu ngi kaas ñoom ñoom kayis foofu dañu découragé ay maam ma ne leen jarul découragé jarul découragé deuxième vague jarul yàkkamti Zahra Iyane Thiam gars yi like leen leen tamit like leen gën partage gis nga deuxième vague jarul yàkkamti Macky Sall moo ñu koy jox yéen gisu leen ne démb victoire ñu am yéen mun leen ko xam victoire ñu am mun leen ko xam première victoire moy Sonko osé dem accompagner bat loolu moy première victoire surprise surprise deuxième victoire xam la moy deuxième victoire deuxième victoire euh nit ñi génn nañ parce que dañu yaakaaroon ne kenn du génn def ay loi terroriste mooy dañoo faale loi terroriste booy ay loi terroriste dina tax ñu bañ a génn loolu mooy deuxième victoire troisième victoire Barthélemy Dias ñu ne ko dàq nañu yëf yi ñu leen dara dañuy dem quatrième victoire bañ leen jàppee bañ leen jàppee nit kay boo ko jàppee da nga ko war a bàyyi da ko war a jàpp yow woo nga Khalifa Sall nga ne ñii ñii dañ leen di dañ leen di euh, euh, déféré ils sont en état d'arrestation loolu nga wax lan moo tax ngeen dellu ginnaaw lan moo tax ngeen dellu ginnaaw xam nga lan moo ma gën a neex ci victoire bi yéen xamu leen sax li gën a neex ci victoire parce que ñu bëri ngi naan non Californie léegi gars yi kaay Californie gars yi dootuñu ko seetaan booy dama bëgg ngeen comprendre benn affaire gis nga ñu patriote ku commence activiste bu fi bu commencé xas Ousmane Sonko da ngay fay kenn dootu la seetaan parce que APR bëriwuñu ab Kaliphone bu njëkk xanaa len xanaa bu Kaliphone dafay vidéo oeil de commune jël ko tasaare ko mais bu dul loolu kenn dul la seetaan Fatoumata Danso loolu la xam moo tax gis nga live am léegi day ñëw commencé di dal Macky Sall sànq laa commencé seetaan benn live am bu commencé di dal lu ne wax na ko Macky Sall très bien noonu la de boo ko deful li nga liggéeyul ñëpp da nga koy yàq gars yi dañ lay jël ranger la au placard billaay barke rasul la léegi li gën a neex ci victoire xam mooy lan parce que Khalifa Sall Khalifa Sall mon moo ne man lol sax gisuma ko man lol bu ma dina ma jax. parce qu'il paraît que quand Abdou Diassé Khalifa Sall dafa jël parole mune xalé yi dem len ñibbi mais Khalifa Sall lol nan la ko mëna défé? vraiment gars yi gën len laaj gën len laaj partagé vraiment Khalifa Sall nak bu ñu fonto quoi gars yi ngeen baal avec tout le respect qu'on vous doit avec tout le respect qu'on vous doit Khalifa Sall nous ñu sonal nan nga mën waxé xalé yi dem nañu ñibbi loolu Ousmane Sonko def nañu ko benn yoon mooy dañuy gunge Macky Sall loolu bu leen ñu ko defaat xale yi bu ñu xasee génn bu leen wax dem leen ñibbi bàyyi leen ñu ñibbil seen bop bu leen ñu sonnal boy ñu xamné ne benn 500 la ñu am wala benn 1000 francs jaajëf madame Diop ah jóge ba way yak sen nelaw ñoo bo fofu nga naan leen dem leen ñibbi mais xale Sall ku mu yàq léegi nag lu ne ñu ko koy wax qui traître là ñoom mam sen nee nañu khalif Sall mak Sall lay liggéeyal ah, euh, euh, euh, euh kay sof nee na c'est pas normal Akhenaton bu mu gisee loolu leen dafa waru dafa waru ba khalif Sall né xalé yi dem leen dem leen nibbi Akhenaton si saa si dafa dem ci page Facebook mu bind mu né vraiment khalif Sall mu ngi yàq suñu combat ñun xéxuñu pour Barthélemy Diaz man wax na leen je me fiche de Barthélemy Diaz je me fiche boy xeex da ngay xeexal ku

the Barthélemy Diaz. We don't care about battle Diaz. We don't care about Barthélemy Diaz. We don't give a damn, guy ngeen baal We don't give a damn about Barthélemy Diaz. You know, c'est le cadet de notre de notre Battle Barthélemy parce que xam battle Barthélemy allah coule, al day bokk ñun ba ñuy génn dañoo venons pour dégager Macky Sall parce que moi, nous voici ci mortel combat dafa defaru ba pare yaakaar ne pare na. jënd ay ay matériel yu bees yaakaar ne pare nag indi loi terroriste yaakaar ne xale yi dootuñu génn man waxoon naa leen ko Macky Sall da di woo ci ay faux combat faux combat mooy da xëcc ba nga yaakaar ne bàtt may lay xeexal mu ñëw ba ci biir rek mu rocceeku dem waxuma leen ko fi ñaata laay laaj laa leen ko wax loolu foo combat la xam nga lan mooy vrai combat Macky Sall dëggal boppam jàpp Sonko ne du ma ko bàyyi parce que dañu téléphoné Khalifa Sall. ñu ne ko ils sont en état d'arrestation comprendre loolu moy combat mais Macky Sall man néwon na len du def loolu duñu ay nit kay duñu ay nit mais ki wax na deug ki wax na dëgg Akhenaton wax na do len ay nit lan ngeen bëgg yalla di len tàccu chaque jour di len tàccu di len tàccu Macky Sall bëgg len jox nguur gi Macky Sall daf len bëgg jox nguur gi mais yeen bëggu len nguur gi du ngeen ay nit kay yow kii jël avion dem France bëggatul dara Macky Sall bëggatul dara ci nguur waxatul dara waa APR waa waa APR xamatuñu xamatuñu lu ñuy def assan Diouf ba mu nekk assan Diouf ba léegi mu ngi doog a def analyse bu baax damay doog gis ci moom Assane Diouf analise bi mu def kenn defu ko Sénégal Cheikh Assane <laughs> Cheikh Assane tandu dafa tandu def analyse bu baax nee na boo gisee tey Mame Mbaye Niang jëmbu ne day nekk maire Dakar nga gis Mame Boye Diao Guengu day nekk maire maire maire de Dakar nga gis maire de Kolda xoma nga gis Mamour Diallo jengu ne de nek maire de Louga di xex ak mustapha Diop ministre makki c'est parce que makki Sall waxatul ak wa APR falé wulen waxu len dara kon ku nek ya jël sa responsabilité fi nek ni wa waa APR kenn mënatul jot makki ku nek ya jël sa responsabilité Macky parce que makki waxul ki la kele la kele la day noppi rek comme nag dafa noppi comme Macky Sall dafa noppi woon looloo tax nag ku mel ne mam mam mam booy ku mel ne mam Mbaye Niang daal di présenté wu bu présenté woo nag ci la Macky te xam nga lu tax ñuy bu ñu bëgg bu ñu présenté Macky woo leen ne leen non bu leen présenté wu Macky amul seen jot Macky waxatul ak kenn Macky dafa mel ne ci ci mondom la nekk moom ci mondam Assane Diouf moo def analise boobu te booy xool loolu dëgg la moo tax ku nekk. bëgg remplacer Macky parce que xam nañ ne Macky day dem mais Macky waxul kenn ki lay jël kële lay jël motax ku nekk di fëgg ndiggam ku nekk di wane sa bop est-ce que ngui Macky Sall dafa pare ci nguur gi bu parewuloon ci nguur gi da fay jël policier yi ñu ñu commencé tirer ay balles réel wala mu ut mais gis nga Macky léegi bëggutul sax xex Macky Sall dafa bëgg dundu Macky Sénégalais la nak Sénégalais la amna tout bon sens maki sénégalais la amna tuti tuuti bon dafa bëgg dund bëggul dédé mortal combat maki bëgg go yeen victoire u démb bi xamu leen ko sax ñom kayis dañoo yakamti nag dañoo yakamti mais gis nga victoire u démb bi mo gëna reuy sax boy xol bu mars bi bu bu 8 mars bi xamu lu tax mu reuy xamu lu tax victoire demb bi reuy parce que Khalifa Sall dak na xalé ba xalé yi ñibbi looloo jox Macky Sall sañ-sañ mu ne comme xalé yi dem nañ mu wo Antoine Diom Neko, ko jàpp Sunko. jàppal Sonko état d'arrestation parce que Macky yaakaaroon ne xale yi mënuñu génnaat mais xoolal en 15 minutes Khalifa Sall def conférence de presse Dès Déthié Fall wax en 15 minutes boy génn VDM VDM non il n'a pas tout gâché Cheikh Cheikh sen, Khalifa Sall même bu fekkoon dafa bëgg a yàq daf ñu defaral xam nga ñun yàlla dafa ànd ak ñun gis nga yàlla dafa ànd ak ñun même bu dee Khalifa Sall daf ñoo rax. parce que loolu la maam seen wax loolu la ñeneen ñu wax parce que li mu def dafa jaaxal ñëpp quand même lu dal ne ñuy xeex ñu jàpp Ousmane Sonko nga ne xale yi dem na ñibbi lu tax parce que gars yi nee nañ la waaw ah après dinañ ko bàyyi Khalifa Sall bu doon daf ñuy jéem a yàqal de gën nañu defaral ndax wan nañu beneen affaire bu ñu xamul woon mooy ne patriote bu ñu xasee génn ba ñibbiwaat boo leen defaatee nii 15 minutes ngir Ousmane Sonko dañuy génnaat. wa APR nag loolu la ñu xamuloo en 15 minutes boy génnaat nañu te gis nga buñu ñu 1 heure de temps dak Sénégal yëpp tak billahi billaay barke Rasulullaay bu ñëw naa dina takk Kédougou dina tak fépp ay takk parcelle parce que bu ak parcel ben la buñu ñu 1 heure de temps Sénégal tak motax khalifa li taxone man ma nek ci ceetu jàllale TV nan wuy gaaw leen ci conférence de presse seen conférence bi dafa yëg dafa gaaw dafa dafa yàgg parce que man xamoon naa ne instant boobu xalif yi ñu ngi si seen téléphone yi parce que ñoom dofuñu bu dee waa APR dañoo dof bu dee Macky Sall dafa dof Gaston Mbengue moom doful parce que Gaston saa yu toogee ci plateau bi dafay wax dafa am ñoo xam ne dañoo wë dañoo nekk ci Macky Sall mel na dañoo bëgg yàqal Macky parce que nan nga mën a waxee dañuy jàpp <laughs> dañuy jàpp Sonko ak Barthélémy Dias Gaston Mbengue loolu lay wax chaque jour déglu ko nag Gaston yi muy wax dëgg la de dafa am ñoo xam dañu nekk ci Macky Sall mel na dañ kaa bëgg a yàqal non c'est sérieux parce que yow ku mel ni Ousmane Sonko nan nga koy jàppee ku mel ne Barthélémy Dias nan nga koy jàppee nga ne dañuy fanaan ci prison moo tax nag xalifa ba mu defee conférence de presse bi xam naa ne téléphone yaa ngi doon jolli mais Ousmane Sonko décision bi mu jëloon lool la imam Babacar wax dafa ndoroon ñëw wax ne.

mooy wax ne yow askan bi du bokk Matam yëpp département xaw ma ñaata plus de trente communes xaw ma tombe amu fi Macky Sall moo xalif généraux yi ñoo ko teg pression ne ko joxel Matam pour gars yi calmer loolu tax ñu jox ñu maatam tey ñu yeewu ñu joxaat ñu Mbuur maître Tall waxoon na maître Tall waxoon na Mbuur bu amul élection kenn du voté élection giraas yi dina ñëw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñëpp dañuy ñëwaat est-ce que yaa ngi may dégg du hasard bu leen ma wax ne juge bi dafa ban juge moo fi ñeme Macky Sall fii ban juge moo fi ñeme Macky Sall Macky Sall ne génne leen yeewu askan bi maatam benn juge di jël décision loolu bëriwul amul ku ko fi def Macky Sall rek sa ndigg ay tapet lañu ay tapet lañu moo tax ma ne leen victoire Khalifa mu doon daf ñuy jéem a yàqal gën nañu defaral. Khalifa il faut qu'il fasse très attention parce que ñun ñu ngi koy xoox commencé xool beneen bët gis nañ ko muy xataraayu fii non damay dem lu tax gars yi bëgguñu ko jàpp looloo ma gars yi réfléchir leen pourquoi ñu jàpp Sonko jàpp Gakou ba pare bàyyi Khalifa parce que ay ordre lañ leen jox mais yii c'est louche c'est très louche Khalifa moo war a bàyyi li muy def sinon.

xaw ma solee war na ni xaw ma sol solom war war di ni c'est louche en l'espace de deux semaines nga def ñaari ak yoo xam ne dafay commencer teel xel nit ñi parce que solom war di ni lan moo tax nga ne day nekk day nekk maire nga nekk di leem-leem di lem-lemal ba Pape Alé Niang di la dal di la wax est-ce que yow da ngay liggéey ak Macky lii boo koy def dañ naan da liggéey ak Macky Sall Khalifa Sall ba pare nga naan suñu xale yi dañuy ñibbi foo ko teg ba pare nga bëgg nekk suñu président erreur aliment élémentaire luy ndeyu nit bi ñun dañoo ñëw pour libérer Barthélemy wala Sonko loolu taxu ñoo jóg mais ñun lan la ñun Sonko jéemuñu ko libérer ñu libérer Barth ñun palais la ñu bëggoon libérer palais ñoom bu ñu defee erreur bu toll noonu. nga leen di bàyyiwaat ñu rëcc ñoom loolu loolu loolu c'était une occasion tellement inespérée jàpp Sonko jàpp Barthélémy nga nekk fa naan da ngay négocier amul négocier boo bàyyiwul léegi léegi pale lañ jëm loolu moo doon wax bi mais dañoo ragal nekk fi di di di di non taal dëkk bi non lii wala lii wala laa Khalifa sal daal na bàyyi li muy def. c'est vrai que génn na après mu tàngal mais mais sañ na bañ a tàngal ñoom Déthié Fall ñoo ko ñoo ko ñoo ko teg pression Déthié Fall ko teg pression Aïda Mbodj ñoo koy teg pression ne dañuy def conférence de presse léegi ñu génne xale ñi lu tax ngay bàyyi xale ñu ñibbi ba pare conférence de presse nekk fa di wax rek la la la am na ku mu ne Déthié Fall bu leen fàttali ne ci réew mi la bokkoon Idrissa Seck gars yi il faut faire très attention de.

tu ne termineras pas ton mandat loolu ko tu ne termineras pas ton mandat waaw loolu lañ koy wan léegi nag ñoom kayis waruñu mer waruñu mer parce que dañoo découragé am ñoo xam ñu bëri dañ ñëwoon Macky suba la war a dem non non man yàkkamtiwuma man yàkkamtiwuma kañ la Macky Sall di dem man loolu c'est pas mon problème 8 mars laa meroon parce que 8 mars bunuh nañ ko fi jëlee parce que boobu demul defaruwaat xam nga demul defarwaat ay nervi foofu mënoon nañ ko fa mais comme 8 mars passé na booy xool démb victoire démb bi moo gën a am doole bi victoire victoire 8 mars déglu leen ma rek fi may waxee li tax merewuma Khalifa Sall mooy boo xoolee victoire démb gars yi gën leen laaj gën leen partage victoire démb moo gën a am importance gars yi ma dem demee ne la que fii booy euh, seen seen kii dafa def bruit victoire u démb bi symbole mon gën a am importance victoire 8 mars xam nga parce que Macky Sall daf ñu jox preuve que nous sommes vraiment Macky Sall day yox yox ba léegi dafa bëgg nekk dictateur mais mi ngi xam ne dictateur yombul gaay yi nit yombul rey nit yomb Macky Sall dafa dem jëndi ah dafa jëm jëndi policiers yi ñoom seen yaram tàng ñoom li doon xaar mooy ku leen jox ordre gis nga tiré nañu la lacrymogène pamti pamte nañ fa euh, gàkku waaye xam nga lan moo jafe joxe ordre ne rey leen nit yi loolu Macky Sall démb la koy doog xam waaw loolu nag victoire victoire bu rëy la en plus booy

mais gis nga boy demba nañu preuve ne loi terroriste ñu gatt boy ñu police amna instant boy ñoo wax policiers yi xolal dem leen pousse leen acca pousse leen xam nga ñu police légui victoire bobu mo gëna symbolique victoire 8 mars parce que nous Macky Sall xam ni, suñu en plus de ça comme nous leen

benn instant dégg ngeen ñu ne la Mermoz mu ngi tàkk beneen instant dégg ngeen ñu ne la euh, fii euh, euh, VDM mu ngi takk yeneen booy dañ doon xaar gis nga gis nga te waa affaire ay cuune lañu Khalifa Sall duñ ko surveiller dara Murkaasa Khalifa Sall amuñu ñu koy surveiller parce que démb démb bu doon moom dafa doon liggéeyal Macky Sall wan nañ koo ne. Khalifa Sall bu doon dafay wane ne dafay liggéey ak Macky Sall wan nañ ko ne mënoo ci ñun dara Khalifa Sall wan nañ ko bu doon da nga doon jéem a sacrifier Sonko ak ak ak ak Gakou ak euh, Barthélemy moo tax nga ne booy ñibbileen fan la mujj ay dem booy teg na la pression Déthié Fall teg na la pression ñeneen ñi teg lañu pression ba nga def conférence de presse nga wax xëy na nag yow pour yow booy wax xale yi du ñu génn mais xale yi gis nga. Sonko kenn mënu ko japp kon Khalifa Sall non man gëmuma loolu Khalifa ban intérêt la am naan day liggéey ak Macky Sall loolu amu sens gaay il faut ñu jox Khalifa Sall le bénéfice du doute loolu amu sens Khalifa bu bëggoon yakal Sonko kay du bok ci coalition bi bu doon dafa bëgg and ak Macky Sall mais du bok ci coalition bi waye nak attention Khalifa dafa xam benn affaire Khalifa dafa am benn affaire xam na ne bu ñu ñëw and ak Macky Sall Dakar yëpp bayiko dëgg la kon nak gaay tamit li ñuy wax amna sens Khalifa pour mu mën liguel Macky Sall il faut que mu melne ne ak Macky comprendre motax tax mu ñew bëgg ñu imposer Wardini Wardini bu jallul mu ne boy dem leen ñibbi parce que Khalifa jour bu waxé maa ngi ci Macky Sall Grand Yoff kenn dootu ko voter il faut que ça soit très clair Khalifa Sall. mënul ci ñun tarafal ay de mënu ko mënul ci ñun tarafal ay parce que ñi ànd ak Khalifa Sall bëgguñu Macky Sall loolu dafay leer si bopp ñëpp ñi ànd ak Khalifa Sall bëgguñu Macky Sall te bëgg nañu Sonko waaw am na ñoo xam ne nag Khalifa Sall lu ñu gëm waaye lu ñu gëm gëm gëm gëm Khalifa Sall bëgguñu Macky parce que Macky daf leen toroxal jël seen teranga pendant xaw ma xalifa ñaata la ñaata at la ko Macky Macky tëju ko cinq kon nag xalifa bu bu bu trahiré waa Grand Yoff waa Grand Yoff kan la ñuy waa Grand Yoff kan la ñuy mais Sonko la ñuy votal parce que xam nañ ne bu ñu votal lu Sonko Macky Sall moo fi toog kon nag xalifa mënul ci ñun tarafal ay mënul ci ñun naada mënul ci ñun tous waaw man sax gëmuma lool gëmuma ne dafay liggéey ak Macky gëmuma mais en tout cas man suis japp rek dire génération bu yag ba la bu leen PS la génération bu bu yag ba la ñooñu xamuñu li xew xamuñu xamuñu politique Ousmane Sonko il est venu avec la hargne de la jeunesse avec la détermination. Il est venu avec, euh, comment dirais-je, il n'est pas complexé devant Macky Sall. Ousmane Sonko dafa ñëw indi beneen façon politique bu baisse. Sonko politique bu bees bu mu indi xam nga lan man mayor yor doole bi mais ñom Khalifa dañu am complexe. et puis ñom Khalifa il est trop démocrate c'est-à-dire gars yi da ngeen comprendre benn xel benn affaire Khalifa Sall dafa gëm yalla bu mu loolu tax Macky Sall toroxal ko même bañ koy jàpp loolu doon wax maa ngi bàyyi lépp ci loxo yalla xam nga Sonko nak du len du la wax bàyyi naa la ak kon pour man Khalifa du question ne daf ñoo trahir trahir ñu seulement il est naïf pour croire que Macky Sall est un gentleman Macky Sall n'est pas un gentleman Macky Sall du nit ko xam da ngay négocier ak mom ñaata yon la lan ko wax on ne négocie plus avec Macky kii la taxone di len ko wax keroog jusqu'en 2024 di len fa egg mak Sall bu lo wowe ne nak ha ñu signé jam ne ko bëgguma ñaaton la len ko wax ñaata yon la len wax Khalifa Sall mak Sall sa yu lo wowe di la wax jam ne ko ma bañ motax ba nga démé ci camp Abdou jassé la xawma commissariat ngay wax ak militaire wala ngay wax jm ñu nan la légui demal ñibbi après dinañ ko bayyi fofu da nga waron wax saay man Macky Sall mënatul wax dara ba ma gëm ko Khalifa Sall da nga waron wax man Antoine Diome mënatul wax dara ba ma gëm ko nee ngeen da ngeen di bàyyi Sonko légui daal xam la lay def dina gis xalé yi mëna leen calmer leen tok leen fi mais bu leen way bu leen def dara sul le fond ni ñëpp sax tok ci suuf ni ñëpp tok ci suuf pour wan la def mais nga ne yi dem leen ñibbi lolu mom lolu mom Khalifa gay sax dañ ne de maintenant sur le terrain bëggatuñu xalifa nekk général xalifa yow da baax ba mu ëpp dangaa baax ba mu ëpp te ñun soxlawuñu instant yi soxlawuñu leader buy layam layami kii sax moo xanaa xamoon ne Pape moo tax xalifa Sall commencé am safara xalifa Pape sax Pape Alé moo ne loo njiit day am safara njiit day am safara bàyyi layam layam yi Macky Sall kenn du négocier mais je pense que xalifa Sall il a appris une démba démba xalif ba màgg na gis na ne Macky Sall du nit ki koo xam ne day respecté parole am yéen a ngi may dégg ah, moo moo nervi lan moo tax gisuñu benn nervi démba koo leen gis mu sol yére policier ponkal comme xam leen ne nervi la ñi doon encadré euh, Khalifa Sall ñi doon encadré Sonko. policiers yi doon engagé Sonko ñooñu ay policiers yu ndaw laa ci gis mais koo leen gis mu ponkal xam leen ne nervi loolu lan moo tax gisuñu benn nervi démb parce que Macky Sall da leen dugal boo demee dugal na leen ci gendarmerie mais mais loolu lan la ko jëriñ démb dugal na nervi si lan la ko jëriñ jëriñu ko dara dama ne la ñu ko Pape Alé Niang wax Pape Alé sax Pape Alé ñaa waxee Macky Sall ay ay ko gën a ñoo nekkoon fii ci àdduna bi ñu mel na ñoom benn Ali Ben Ali président Tunisie ñoo ñu ëpp doole seen armée moo ñu ëpp doole Égypte ñoo ñu ëpp doole ñoo ëpp doole Algérie mais gis nga population bu jóg xajul ci Macky Sall xam nga gars yi ngeen comprendre Macky Sall mënul gagner wax naa leen ko parce que bu xale yi génnee nga rey ci benn rek laa la wax benn yàqu nga Macky Sall loolu mooy problème bu reyee kenn xam nga 14 morts sax ñu ngi naan Macky ko def defu ko waaye bii paa Macky dafa dem jënd ay matériel yu bees jënd ay lakk lacrymogènes yu bees jël policiers yi tàggat leen bu baax ñu gën a entraîné gën a cawat ñu gën a sawat ñu menacé leen kuñ fi wax tiiral tiirewuloo dañ lay yóbbu Kédougou lañ lay yóbbu dañ lay affecté te mën nañu wàññi sa grade mën nañu wàññi sa salaire loo tax policiers yi am sawarte kon nag ku deewaat ku deewaat xamal ne Macky mooy responsable nee naa leen dafa yomb trop Macky Sall toog fu mu toog wax ak ñoom Ousmane Noël Dieng wax ak Seydou Seydou Seydou Guèye wax ak euh, euh, Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñëpp génn di tëkku nit ñi dañuy génne suñu kii ñoom defoon nañ seen plan ba pare El Hadj Diouf ñoom ñëpp defoon nañ seen plan ni xale yi bi ba ñoom Sonko bu ñu génn dañ leen di massacre billaahi loolu moo doon plan bi mais gis nga nga toog palais di def sa plan ak nga nekk sur le terrain joxe ordre pour ñu rey nit saa yi loolu yombul loolu Antoine Diome du ko teel a def jamais Macky Sall du ko teel a def jamais démb gisu leen ay pistolet de gisu leen pistolet de man de ay lacrymogène rek laa gis mais bu leen fàtte ne événement 8 mars gars yi bal réel lañ doon tiré c'est gis nga Macky Sall loolu mooy problème bu reyee benn nit waxuma la sax Sonko benn nit bu bu mu ko rey cour pénal international ñu koy teg bët Biden ñu ngi koy teg bët ba pare ñun tamit ñu koy teg bët parce que bu ñu xasee rey benn nit foofu c'est la guerre loolu laa bëgg ngeen xam kon nag Khalifa Sall ñun lu ñu lay wax Khalifa Khalifa Ababacar lu ñu lay wax mooy beneen yoon bu combat amee bu combat amee yow demal soxlawu sax ngay ñëw sur le terrain waaw comme yow yow gars yi bëgguñ leen a jàpp la moo tax bëgguñu ko jàpp xalifa ñëw ñu ñu koy bëmb demal yow jàpp ñu yow soxlawuñ la parce que xam nga fan lañ soxlawee xaalis daal pour mu xale yi dem ñibbi lu tax jàppuñu ko mais Malick Gakou lan la fa def Khalifa Sall saaga na leen sax nee na xaw ma lan buvette xaw ma lan des sauvages xaw ma Khalifa saaga na leen lu tax jàppuñu ko parce que dañu soxla khalifa pour buñu waxé xalé ñu ñibbi khalifa mo leen di wax dem na ñibbi waaw ki nee na waaw waaw khalifa kilifa loolu dinañ ci wax après parce que yalla mar dañ ko sacrifier légui sama live nan la ko tuddé défaite APR gars wa APR dem dañoo sedd dañoo xam nga li li ñun li ñun li affaire mo ñu naron dal. hey you come to clear for your money government di di ma di wax ak ara ma man gis nga li dal affaire ñu dal li dal affaire ñu dal xam nga lan billaahi wallaahi tàllaahi non gars sant leen yàlla ñoom kay soof ñoo fi nekk di kaas kay sof ñoom ñoo fi nekk di kaas ak Akhenaton kay soof Akhenaton maam seen ñoo nekk di kaas parce que xamuñu ne gis nga APR ni ñu leen toroxalee ñoom noonu la ñu doon toroxalee démb gars yi affaire bi nu mu commencé woon démb baaxul parce que ñoom Sonko man man dama taal sama sama sama ordinateur trois heures du matin xool xool gisuma dara ma tëddaat parce que New York la nek ma dal duma duma yak samay nelaw mais bama yewo yeewoo xam lan la fekke dama yeewu dem sangu bi jóor sama ndek bu bax nan sama café ne xara ma tan xam bama yewo ci lan la yem moy fi ñom Sonko dugg ci immeuble bi ñu encercler lé mais gaay lan lañ doon wax ñom Sonko dañoo daw dugg ci magasin ma waaw mais li ñu demee ni daw man lool la gis ma ne li lii ñoom Sonko daw laq non lii baaxul ba ñu génnee ba ñu génnee Barthélemy Dias ñu tàll ko micro ci oto bi lan ngeen di def mu ne dañuy ñibbi mën a ko ñibbi <laughs> ay bu ñibbi woon bu ñibbi woon kon gàcce moo ñuy dal gàcce ndax yéen dañ leen dàq ngeen daw dugg fenn te ñu ngi naan ay magasin la dugg na fii ba pare xale yi génn encadré leen yéen ngeen bëgg a ñibbi mais nak xamna ci biir instant boobu ma ngi def sama laaj ma ngi naan ñibbi ñu leen ñibbi kay ma ngi wax loolu xawma ndax ñom Bart dañ ma doon sétat wala doon ñu sétan ku melni man wala ñom seen bop ñoo nax policier yi pour wax policier yi dañuy ñibbi parce que xamna ñu bu ñu ñibbee gàcce la motax ñom ñoom la ñu wuñu ñun dem nak université lañu bëggoon jaar pour génné boy xamna policier yi nak na leen du fi dal fofu lañ leen jappé nak grenade di commencer tak rek mané c'est bien. ma ne am nañ victoire man ba grenade yi tàkkee booy commencé daw affaire yooyu ma ne c'est fini lii lañu soxla ci Sonko lii lañ soxla ci Barthélemy mu gën a neex nag fi mu gën a neexee ñu jàpp leen ñu jàpp leen non bëgguloon ñibbi Barthélemy bëggul ñibbi dafa nax policiers yi dafa nax policiers yi dañ leen nax comprendre wala boog Sonko moo ne ko saay ñibbiwuñu Barth moom loolu la wax Sonko nag ne ko ñibbiwuñu léegi nag. léegi nag bañ leen jàppee foofu la foofu la waa app APR foofu la ñu defee erreur waruñu woon jàpp ñoom Barthélemy mais nag risque la parce que Barthélemy boo ko jàpp déggoo li ma doon wax ñoom Barthélemy man sama laay jël leen seen temps daw leen dix à l'heure def benn parade comprendre nga parce que boo xool sax loolu victoire la parce que ñoom ñoo la wax ñëwal tribunal ñëwuloo léegi yaa ngi circulé booy ànd ak yow gisu leen policiers fu ñu dóoree gërëm nag instant yooyu booy yooyu dañ doon wax Sonko fii nekk xaw ma lan am na daal lu ñu doon wax benn way boo xam ne loolu moo bonloo seen xol policier loolu moo bonloo seen xol parce que dañ ne Sonko fi nekk genre way yooyu dañ ko way même pas une minute gendarme xam naa Antoine Diome moo ne leen disperser leen parce que instant yooyu ñu ngi defal Sonko publicité mais gis nga bi ñu ñibbi woon li dal affaire moo ñuy dal imaginer booy noonu lañ doon ñibbiwaatee mais beneen yoon boo leen waxee booy génn est-ce que dinañu génn. déedéet waaye yàlla moo ñu suturaal yàlla moo ñu suturaal dof yi ñu doon ñu jàpp Sonko yóbbu ko euh, euh, central parce que xam nañu foofu wóorul gis nga bu ñu fa toogaatoo san booy central lañ leen di fekk moo tax ñu yóbbu leen ci camp camp Abdou Diassé parce que camp boobu da lay leer ne camp boobu day day day rëy day am mur moom xaw ma camp Abdou Diassé xaw ma fu mu fu mu nekk est amee dégg. day am ay GMI ci biir am seen oto am seen lépp foofu kenn mënu fa dugg terewul booy ñëw fa waaye waa APR li tax ma tuddee sama live defet Macky Sall gis nga booy diggee da ngay diggee loo mën Macky Sall pendant huit mois dafa ne lu fi amoon dootu fi amaat waa APR gëm ko di dundee yaakaar yaakaar ne seen général dina fayu dina leen jox victoire parce que bu leen fàtte ne le général Macky Sall bu la neexee sax nga tuddee ko le maréchal Macky Sall bu leen fàtte ne le 8 février dañ ko am mbéj yéen a ngi fàttaliku mbéj ba ba yaaxa mbéy génn di wax mbéj ngeen ne dootu leen ñu mbéjaat Macky Sall génnaat mu ne li fi am li fi amoon c'est parce que Sénégal c'est une démocratie mais lii bu doon beneen dëkk boo xam ne amul démocratie il y aurait des centaines de morts il y aurait des morts waaye li fi amoon du fi amaat mer nag xoolal

tournée économique dafa Macky parce que ci tournée économique ci la en Tampi xam nga kon match Macky mais man j'avais peur Je ne pas Je ne pas. Je pas... man wa APR conférence de presse Seydou Gueye Sarr Ousmane Noël Dien... Zahira Zahira parce que nous Sonko ñoo njëkk def conférence de presse waa APR tonte dama ne c'est pas possible déjà sommes daanu À perdre, dans nous tontu kon bu ñu tontoo rek loolu dafay fait ne ñii ils sont déterminés mais yemuñu ci tontu ñu ne dañuy génne seeni nit gis nga nit boo diggee say gis nga say partisans boo leen jógee diggee victoire da ngay deliver you got you got to deliver when you promise victory to your fans you gotta deliver if you don't deliver then it's gonna be a lot a big disappointment mooy nit ki doo leen dundaloo yaakaar parce que ñun Ousmane Sonko daf ñu yóbbu ci benn xaay daf ñu yóbbu ci kaw léegi boo demee ci benn xaay dañuy espérer mu indi ñu victoire mais nga yóbbu ñu ci benn xaay ba pare mas ñu loolu la waa APR def Seydou Gueye génn ñu def seen Mumbaay dem seen seen seen seen seen siège jigéen yi génn géwél yi génn commencé def Ousmane Dione def benn discours guerrier li ba pare man li ma ci jaaxal fit bi ñu am c'est vrai que nag dañu xaw a ragal jour boobu parce que au lieu ñu tontu Sonko Khalifa Sall lañ tontu parce que ñoom lu tax ñu yëpp Khalifa Sall moo ma jaaxal Sonko moo génn mu ne na ñëpp dem tribunal comprendre luñ lu mu leen jaral lañu ko jaral lu tax ñu tontu Khalifa Sall tontu wuñu Sonko mais au moins seen discours xawoon na nekk discours guerrier parce que Noël Dieng nee na. dañuy avons suñu militant ñu defanteeg ñom ba mu saf-saf Cham, Zara Mune, Mune. li 8 mars am ba pare erreur bi ñuy def suñu terme sax ñom dañ koy utiliser deuxième vague d'autres am lolu kay moy défiance est-ce que xam na ñu wax lolu mais lolu dañ gëm dañ gëm wax

pour écraser ñu mënuñu écraser ah mais dama yaakaaroon ne dinañ def confrontation bu métti ñu bëri sax ne woon nañu Sonko bul génn parce que Macky mën na ci profité rey la. gaa est-ce gis ngeen gis ngeen climat bi ñu nekkoon waa APR loolu lañ leen gëmloo am na ñoo xam ne buñ sañoon ñu rey Sonko su dem billahi non c'est-à-dire yéen déception bi APR am xamul ñoom dañu yaakaaroon Maître a la Diouf bu demee ba R R RFM. di wax ku génn dañ rëq sa ndigg Ousmane Sonko terroriste taal sa parce que ñoom ñëpp dañ leen briefé ñoom dañu yaakaaroon dëkk bi day tàkk dañu yaakaaroon Macky Sall ah dañuy reewoon dinaa leen wan maay kan Macky Sall jël temps dem ci xarit généraux yi ñëpp mu briefé leen Macky Sall da leen briefé convaincre leen nit ñii il faut que ñu détruire leen sinon Sénégal du mës a am jàmm xaw ma lu ma leen ko expliqué ba xalif généraux yi ne amul problème xalif xalif généraux yi tamit daal noppi parce que Macky dafa lii daf ko yàgg togg Macky daf kaa togg lu yàgg-yàgg préparer armèm préparer policier yi préparer nervis yi def plan de communication ñii bu ñu génnatee il faut ñu répondre leen ñu réseaux sociaux yi yemuñu fa jatara génn def discours bu gën a incendiaire discours jatara bi boo ko dégg da nga naan ah. way ñi dañuy xaru té avant ça bu leen faté né Doudou Ka attaquer ñu ñaar yo kon da nga nan yaay ñu ñu ñëw ñi ñi ñi ñom vraiment paré nañu pour guerre wa affaire yépp tapet yi dem yi dem yi nga xamni dañoo ragal ku taal seen kër ñom du ñu xeex de dëmm yi ministre yi nga xam dañoo ragal ku taal seen kër bu ñu sañ dembal lañu yaakaaroon dinañu toroxal Ousmane Sonko. démbal lañ ko yaakaar waaye Ousmane Noël Dieng ne non loolu dafa naa kii ma ko wax jatara képp ku Macky Sall fal poste de responsabilité da nga génn ci terrain loolu moo doon message bi waaye duñ ko def ku nekk da ngay toog sa salon di xaar sa moroom génn la ci xam lu tax parce que ku xas sa génn ba ñu xàmmee la comme jatar yàqu nga parce que patriotes ils ont une mémoire d'éléphant. éléphant gis nga patriote daf ci am booy yu doyaat man nag xaw ma ñan ñooy taal kër yi xaw force occulte la parce que ñoom nee nañ dafa am ay force occulte yu ñu ñu rax gis nga ñooñu ñi xawma ñan ñoy taal keur mais ñooñu xama ñan xama nga ñan la ñuy taal borom laam yi ñuy rëy man d'accord mu ci taal keur <laughs> mais ñom ñoo la gëna a taal katu keur kër yi xamuñu ay jinne lañu. man boy ni ñu taale kër yi sax dama jax jaaxal bu ñu ba taal ay kër Mariam fay di taal ay kër Mansour fay di taal ay kër Birima ndjay mais xolal Birima ndjay mais ko Hadj djouf Mamour Diallo ñoñu la taal seen kër xam lu tax parce que ñoñu ñoo feuss motax jatara bu ñëwee feuss mi ngi jël ay risque ka bu ñëwee feuss mi ngi jël ay risque mais ñom ñoo la ko gëna xam loolu nag moo taxoon mun ma tiit ko ne Macky pare na wax naa xalifa généraux yi wax naa ak France wax parce que man mënu woon comprendre lan moo tax ñu dàquñu dàquñu affaire bi waaw lu tax dàquñu ko Barthélémy Dias démb sama live bërki demb loolu laa doon wax Macky Sall dàqul affaire parce que man xam naa booy yi bu ñu xasee génn booy seen yaram ñoom lu ñu war a comprendre mooy patriote yi suñu yaram dafa tàng pour xeex li américain di wax we are spoiling foo a fight on ne demande que la guerre fu mu nekk nii booy liggéeyu lekkuñu naanuñu amuñu benn programme am na nawetaan sax am na ay foo xam ne dañ ko dañ ko interdire kon booy benn espoir la ñu am mooy ñu génn ñu xeex surtout nag bi ñu gisee seen général le général Sonko daal di génn nekk sur le champ de bataille léegi nag. man ba ba ba jatara waxee loolu laa ne cheur tët kii ne ay jinne ño dañ ñoo rax xaw ma ñan ñooy taal kër yi mais mais non c'est-à-dire booy dañu booy dañoo sadik de dañu garaaw kon nag boo gisee waa APR di ñu tëkku da nga naan kon le 10 novembre saa va être très en plus de ça Macky Sall daw na génn réew te ñëpp xam nañ ne Macky buy def yenn yi du ko fekkee Khalif généraux yi kenn waxul ils étaient prêts à sacrifier son coup. parce que je xam nga la Je am dem man dama ne woon démb moy am Sonko du day Il këram tamit gars lolo fausse calcul li son ay yi calcul Sonko bu dañu

mais en tout cas en tout état de cause en tout état de cause Macky Sall dafa waaf en tout état de cause Macky Sall dafa waaf waaf bobu mu waaf Nous, dafa ray APR daf len yàqal lu beuri beuri ñun daf ñu mais suñu crédibilité mais waa affaire fu nekk nii xam nga ñoom dafa ñoo xam dañu bëgg enterré dañoo bëgg suul mais ñun démb dañoo suul APR billaahi wallaahi taalaahi dañu leen suul moo tax Ousmane Noël Dieng ndeysaan après ngeen dem seetaan kanam gi dafa triste dafa foofu dafa mel na dëj moo fa amul parce que li ñu yaakaaroon seen yaakaar moo tas Ousmane Sonko gën a am doole billaahi Sonko mooy jàmbaar jël parole bi mais mais sanq génn naa benn vidéo ma ne Ousmane Sonko star la sànq dama génn benn bu ndaw sama live démb laa ko wax ma dagg ko dugalaat ko mais Ousmane Sonko c'est une star gars xool leen ko démba chemise bu weex tàll mbaxane bu ñuul chemise bi gisuma ci benn tache froissé wul ñu naan Sonko dañ ko patam patameek dañ ko di dafa daw làqatu xool leen chemise bi xool leen chemise bi comme Casamance rek ba muy def caravane chemise boobu la soloon ak béere chemise bu mel noonu la soloon bu weex ak béere bu ñuul def na caravane bi ba caravane bi jeex chemise bi amul tache froissé wul xool leen démb Sonko chemise bi mu sol weex bi mu sol moom la sol tacheul froissé wul xool leen kanamu Sonko man en général su ma defee vidéo damay damay changer couleur bi nii pour rafetal mais Sonko photo yu mu def. Je ma sank billahi change bi ma njëkk dugal ba may bind euh, Sonko Sonko euh, star changé ma sax couleur ba nice clean bar michette sol stressé wul tiitul chemise bi blanche une chemise blanche immaculée c'était une promenade de santé pour Sonko démb te xoolal nu mu yàggee ci yoon bi Barthélemy dafa sonn conférence de presse bi xool leen Barthélemy dafa sonn mais Sonko c'était une promenade de santé de santé pour lui Billahi, he didn't break a sweat Les Américains disent, he did not break a sweat maanaam ñaqul xiixatul sonnul xool leen lolu. caméra yi dar ko Sonko dafa mel ne Beyoncé kii Jay-Z ak Beyoncé démb dafa mel ne Jay-Z ak Beyoncé ñoo doon def conférence de presse Barthélemy Dias dafa mujj wax non non na journaliste rek dugg mais xool leen buuxante bi ku dugg ci biir nga gis gars yi ak seen caméra non damay dugg non non non non non non Sonko rek a mën lii loolu tax moom mu jox inspiration ma ne Sonko c'est une star c'est une star internationale lolo, mënul c'est parce que nous analyser analysé. Sonko nous nous les gens étaient excités même moi, Sen TV yi ne bëgguñu pas dañuy Sénéweb yi nga dañ leen articles yu Sonko dafa dem ci magasin ñu ngi parce que nous ko pas exister il faut que nous wax Sonko Macky Sall lu mu leen fay fay fay fay di leen yóbbu ay Dubaay ay Diallo ñu koy yóbbu ay Dubaay di leen korom léegi dañuy génn ay génn ay article di xas Sonko te pour temps Sonko bi def presse conférence ñoo fay njëkk seen TV ñoo fay njëkk dégg naa wala fajjëre mu ngi doon wax ne après star la ba pare Macky Sall cuune la cuune bare cuune mooy Macky Sall Gaston jàngul jongu <laughs> mais xam na Gaston meng jangul jongul mais sen TV la dem mune dafa am ño xamne dafa melni dañu bëgg yakal marché parce que nan ngay wowe Barthélemy Dias tribunal Gaston meng ci bopam neena affaire bi dañ ko wara a gis nga avocat porte parole APR num mu maître maître Sey maître Sey tamit tok nak pap ngagn mune yeufi dañ ko wara dak. yeufi dañ ko wara a ba après élection yi mooy porte parole fi nek nekk porte sortie li bëgg dañ cey bëgg genn ba pare Gaston mu ne ñom Gaston ak ak waa ji euh, ministre la xam moom ministre la xam wa wa euh, APR bi bi ñu invité seen TV nee naa yaay na avocat Bart dem ci juge bi ñu wax juge bi nañu dakk le 1er décembre ba après élection duñu dem fenn maître Khoureychi Ba bu laaj juge bi gàtt Barthélémy Dias

déedéet neko ne ko dañuy wuyu dañuy wuyu dañuy demaat defaat caravane comme ñoom dañoo bëgg defal publicité mais Macky Sall mooy cuune yow kii bëgg a maire de Dakar adduna bi kenn xamu ko léegi bi yëpp xam nañ kan mooy Barthélémy Dias nii la defaloon Sonko mois de mars moom moo tax Sonko adduna bi yëpp xam ko ngay dem ba ay Corée du Sud ñuy wax Ousmane Sonko Chine.

ba kii Gaston Mbengue xam na ni ba kenn waru koo ba pare waxuma la dañ koy reporté ba le jour décembre waxuma la ko ñu reporté ko décembre ba pare ñu ne ñun nañu dem laaj juge bu ñu laaj gat te dinañ ko reporté par force buñ ko reporté woon ñu defaat beneen caravane te bii ba mooy gën a saf bii ba non Gaston dafa muus Gaston dafa muus gis nga bateau bi bu commencé jël ndox kañe yi nekkon ci kaaf bi ci souf dañuy yek dañuy génn dañuy tepp gasson dafa mous boo gisé né Macky Sall mi jéxal gasson lolo wax demb Abdoulaye Wade fi nekkon Abdou Diouf fi nekkoon Senghor fi nekkon ana ñu ko fi nekk ana ñu fi nekkon diko jay té ñu bëri ñi ngi ci mbéd bi di yalwaan gasson c'est vrai que ñun andu ñang mom parce que mu ngi ni ñu koy jox ay milliards muy défar lamb waye dëgg bu joté ñi wax dëgg comme genre Gaston ak ay genre ya xam dañ leen di bal ñooñu jinne yi duñu taal seen kër <laughs> bëgguñu jinne taal këru kenn waaw te Gaston li wax moo am dafa am ñoo xam ne tey ñoo wër Macky Sall Macky Sall du wax ak kenn dafa fay téléphone dafa am ñu ko wër ñoom genre Mahmoud Salé. di wax naan wey ces élections là vont déterminer ah la recevabilité de de la candidature de Macky Sall en 2024 ces élections ne sont ne sont pas ce sont des élections politiques troisième mandat bi fi liñ ko mëna xam di wax ñoñu ñoy jay bekk sal ay dinosaures yoo xam xam-xam amuñu ci gat xaar ba jour bi ngeen da ngeen di reporter ñun ñun xamoon nañ ne da ngeen di reporter motax batelim ak Sonko ne dedet dañuy dem tribunal ñom tabi xeyna loolu lañ def Macky Sall xeyna musul bëgg xex Macky Sall xeyna musul bëgg xex mais dafa gëmloo wa APR ne day xex ñu xaar ba mi génn ñu ne ko léegi delluwaatal loolu tam mën na ne waaye victoire bi ñu xas a am léegi booy ñemee nañ leen léegi booy ñeme nañ leen te dafa commencé ak Guirassy Guirassy la njëkk commencé xeex ak xeex xeex foofu Pape Alé Niang jàpp leen préfet Ndiou Ndia Ndia Diop sous préfet Ndiou Ndia c'est-à-dire cest ñun dañoo garaaw. gis nga gis nga Pastef li tax mu garaaw mooy dañuy xeex sur le terrain dañu am ay analystes yu mel ne Pape Alé Niang yoo xam ne gars yi dañ leen di seetaan di leen déglu ñoom Issa Diène dañ leen di déglu parce que euh, euh, euh, saa waay nu mu tudd Abdou Mbow wax na fi ba tudd Issa Diène benn jour comprendre ñooñu ñooy génn Pape Alé bi ñëwee dal ci préfet yi génne leen seen photo dugal leen ci internet bi su préfet yi les sous-préfet Ndiol Diagne challenge comme ça seen doom yi xam ne ay sàcc lañ pression boobu dafa bëri ba pare nag mais pression bi gën a graaw mooy ñun suñu doole xam nga fan la sur le terrain boo tax Macky Sall ba mu ñu invité man gëmeewu ko Macky Sall ba mu ñu ba mu ñu invité ne ne il faut que Barthélemy wuyu gëmeewu ma ko Macky Sall dafa mel dafa bëgg saraxe APR.

démb mom dafa jébbalu ci Sonko musuñu gis nit buñu japp nit bo xam ne dañoo annoncé arrestation une heure de temps après une heure de temps après ñu def ben conférence de presse bu 15 minutes rek après ñu bàyyi ko ci le champ musuñu gis lool té gaay li ngeen wara xam moy okay balaa mako ko doon lii kenn waxu ko breaking news man maa leen jox xibaar bi l' affaire Adji Sarr est à jamais enterrée ñoom léegi defe naa defe naa leer na ci bopp nit ñi sëgam Barthélemy Dias la ñu mënul yóbbu tribunal Adji Sarr moom diilam kalaate na diil boobu sax kalaate woon mais léegi dafa leer leer leer na ci bopp ñëpp que ne Sonko kenn du ko wo tribunal ci affaire Adji Sarr d' ngeen wala d' ñu wala d'accord accord la maa juum wala yene wala wala yaa juum ko niko Ahmed Aydara. di waxe Sonko a enterré définitivement l'affaire affaire Adji de par sa victoire éclatante hier avec Barthélemy parce que Sonko demande à Macky Sall de doser le convoquer au tribunal même Bat dafa teel a wax mu duma wuyu ji le premier décembre mais Sonko en stratège qu'il est Sonko stratège qu'il est mu non non Bat dafa teel a wax mais dinañ waxtaan lu mu wax nak lu mu décider Sonko gentleman, mel la parce que mënul décider à la place de Bat Luñu décider bu dee Bat dafa ne du dem ma ànd ci mais ñun dinañ tok waxtaan ak mom wax ko ne suñu intérêt la le 1er décembre nous dolliwaat le xalé yi xalé yi génn ñu def suñu caravane policiers yi génn jàmbaarloog ñun ñu ci nous, leen waaye Nous am nous muy la jëm dé. Légui nak Nous Macky Sall Sonko Adji ci affaire Adji jamais bu dof lo bo wo tribunal sax wax waxuma confrontation su bëggee dëkk bi rek il a une haine viscérale de Sonko maître El ne vit que de l'espoir de pouvoir s'asseoir dans la même salle d'audience et d'avoir la possibilité de faire d'interroger

jàkkaarloo maître El Hadj Diouf di wax gis nga ñu ngeen kan ko ay preuve yoo xam ne billahi barke Rasul ah yooxu dina jube dina jube jibe foolan ko foogew loolu la ñu waxoon ana Birima Ndiaye ba yëf yi tàkkee mu daw dem Dubaay maître El Hadj confrontation boobu du mës am lenn bu dee lenn day am dañ leen di woo individuellement Sonko juge mën na ko pour entendre ko moom kese ci affaire passeport beeg yooyu ma xamul wala sax ci affaire Adji pour jéem a classer dossier bi loolu sax ak li am démb loolu sax dootul am bu dee Macky Sall la nit la loolu sax dootul am ndax Sonko boo ko woowee tribunal caravane lay def léegi loolu moo xew <laughs> Je dégg waa affaire di non on on peut pas ñun ñun xamatuñu ban dëkk nekk ah bu nit sàccee dara lu ndaw ñu woo tribunal day mais ñii buñ leen woowee duñu ñëw léegi loolu xew challenge boobu moo xew léegi Sonko nee na chef de l'opposition benn opposant Sonko nee na kii samedi le maître va parler maître xam nga lan Macky Sall lu tax mu tapet ko waroon jàpp lu tax bàyyiwuñu ko loolu rek la fa mën a wax leneen lan la fa mën wax leneen maître Diouf nee naa la maître Diouf xol baa ngi bon gars yi man damaa xam nit waxuma leen ko maître Diouf démb li ko dal dafa mel ne coupe d'Afrique Sénégal Sénégal def ku na coupe d'Afrique xam day am ay hauts et des Sénégal mën na jouer coupe d'Afrique dugal premier but ñëpp yu waay dem ci bir gars égaliser dem ci bir Sénégal dugalaat mais finalement ñu gagné Sénégal lolo dal Maître Diouf parce que Maître Diouf démb gis na Sonko ñu né dafa daw làqatu ci ben magasin loolu bu ko Maître Diouf géegee danaam wóo oh, ça c'est bien tapet la kon dinaa mën guen wax tapet la waaye mu jékki-jékki gis Sonko génnaat bu mu guenné mi ngi ñaan yalla policier yalla yàlla nañu ko dóor bal fofu sax wala buñ ko mëne ray sax yalla nañu ko rey wala bok ñu toroxal ko comme Malick Gakou nu mu daanoo noonu bu Maître Diouf comme Sonko comprendre ba ne dañuy ñibbi xamna Nous découragé na ñu do non ñi ñibbi quoi day xam nga day parce que ñu moy Sonko dañ koy japp su lu bon bon minimum ñu japp ko wala mu dof dof sax ñu wala ñu blessé comprendre mais liko ko décourager moy ba ñu jàppee Sonko ba ñuy annoncé ne arrest arrestation Sonko foofu waa APR yëpp ci benn côté kontaan nañu mais ci benn côté aussi tiit nañu parce que kontaan nañu mooy ñu ngi dundee yakar ne comme Khalifa Sall moo ne booy nañ ñibbi jàpp nañ Sonko mën na am gaay yi dinañ fi nek di layam lay ni buñu buñu jappé Sonko kenn ma fi deful dara mu fanaan koso kon maître Diouf mom loolu la bëgg. waaye ñu toogaat tuddi ñu bàyyi Sonko loolu déception bu mag la ci Maître Diouf xam naa ne démba nelawul reerul mi ngi doon saaga mi ngi doon Macky Sall tapet la ah sa bandi laa kii ñu waroon ko jàpp def nii def léegi nag boo leen ma waxee day def conférence bes leeral du ma wet du ma bett waaye li ma ko wax bu yóbbu mu xam ko te xam naa ne sax looloo tax muy def leeral l'affaire Adji Sarr à jamais a été enterrée parce que ku ñemul woo baat di nga ñemee woo Sonko jamais Nous kay ñoo premier décembre mais comme nous ma dit, maître ne Ba pas ni nous ne l'avons pas ni leen xamee nous seen bind di wax dañuy demander recours façon wuyu ya wax wuyu kon bul wax sa avocat bul wax sa avocat mu bind di wax dañ ba après février bayi leen ñom ñu ñu par force dañ ñu ko dàqul ñu ñu def rebis waaw waaw te bii bu ñu génnee bu ñu génnaatee te te ñun dañuy génnaat dañuy affaire passeport bi non yooyu yëpp ay détails la ministre Sonko talul passeport xam nga xeex bi voilà pour comme ça sax ma def transition c'est-à-dire cest ñoom kay sof ñoom kay sof comprendre naa leen bu sañoo sañoon ay maam seen ay kay sof dañoo mere mere Macky Sall ba bëgg gis toroxal Macky Sall lu mu gaaw gaaw mais man loolu dépassé naa ko man meluma noonu man la 8 mars moom dama xam ne buggoon naa mu jóge man du Macky Sall de man APR laa wax parce que man c'est-à-dire yéen yéen a focus ci Macky man focusuma ci Macky de. man waa APR système bi ñooñu groupe groupe boobu laa bëgg ñu dem man Macky foo kuusuma ci moom parce que man xam naa ne day dem loo loolu le 8 mars la mais comme démb nii gars yi nag dañoo mer dañoo découragé parce que dañu yaakaaroon ne c'est-à-dire bi ñu def ñoom kay sof erreur bi ñu def même Ousmane Tounkara sax deful erreur boobu erreur bi Ousmane Tounkara bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne moo gën a yàkkamti Macky dem deful erreur bi Kayz def Akhenaton def ko Mamsen def ko mooy they had their hope too high maanaam seen yaakaar démb dafay dafa kawe woon trop ñoom dañu yaakaaroon ne démb day am confrontation man musuma xalaat ne day am confrontation kii neen sa sauf entre Aminata Mbengue Ndiaye et Moustapha Diop Mamour Diallo a une chance de gagner fofu de bu Pastef gañewul bu Pastef gañewul Mamour Diallo gagné sax moñu gënal parce que l'essentiel mak fu fa tek bu mu gagné mais bu leuma dévier la la doon wax légui la la doon wax légui ba fat ci gaay rappelal ma rappelal ma li wax légui wa kay dama né ñom kayis dañu sen yaakar demb dafa dafa dafa kawé trop man musuma xalaat non il est déçu déçu, il est déçu xam lu il est déçu déçu. Il dañu déçu. Il confrontation dina am man déçu. Il ma déçu. Il est am Il dina am sax du ko gëm man bu est déçu. Il est doon wax est déçu. dina ko Il est-ce que déçu. Il ngi rappeler man dama ne suis est déçu. dina ko déçu. Il est ma est du matin Il New York il dara dama nelaw ba ba ba yow dama nelaw ba nice maa xam ban heure laa yow 6 heures 30 fekk na boobu nelaw naa ba doyal 3 heures du matin laa laa yow tëddaat ay côté cinq heures du matin yooyu sama sama ordinateur nag fayu ma ko dama ko taal ay oto côté 5 heures du matin bëgg naa xoolaat sax ma ne ah. nelaw yu neex yi daal du ma ko yàq dama nelaw ba 6 heures 30 ba ma yeewoo. taal gis ñu né ñom Sonko entre en kii nañ leen encercler nañ ma ah kon de fii au moins au moins y a quelque chose mais gisuma urgence je ne sentais pas que dëkk bi dina tak motax dama jëm yow man normalement 7h30 la yeewu dem sangu mais gis nga 6h30 boobu la ne eh xaaral sax ma yeewu ma dem sangu defar sama ndékki mais ndékki bi nak dama def ndékki bu gëna fort parce que xamona né comme affaire commencé na ça va durer un peu ba côté añ. te man normalement dama war a génn dem ndékki ji ay 10 heures yooyu dama war a génn mais man dama xam ne jour boobu dinaa fi ay midi au moins mais man xamoon naa ne ay côté midi une heure yëf yi dina jeex man xamoon naa mais Macky Sall dafa dof quand mais gars yi tamit il faut réfléchir nag ñoom cest à ñoom ñoom ne tam ak kay dañoo yàkkamte ak Mame il faut que tamit il faut que ñu xam ne saa waay Macky sénégalais la Macky du Alpha Condé du ngaaka nag ak Sall du ngàkk rek bay joxe nguuram ci nii deuxième vague ñu koy rey di rey di rey Marème Faye di rey non Macky doful nag quand même doful wala coup di am c'est-à-dire Macky n'est pas fou te démb wane na ko Macky dañ ko war a tàccu sax booy xool dañ ko war a tàccu parce que dafa ne ah saay rey sénégalais dara jaru ko fi bu ko neexoon mu mu mu xeex ak ñun rey ñu rey ñu bëri Macky Sall waaye dafa dem ba ci biir saa yi mu xam ne saa yi lii <laughs> mais dañ ko war Macky Sall dañ ko war a tàcc billaahi dañ ko war a tànk parce que dem na ba ci biir mu xam ne saa yi nekkul ci dëgg xalif yi woo ko France woo ko ñëpp wax ak moom nekkul lii munoo ci gañe Sonko bu deewee rey Sonko ak a yomb rey Sonko Macky Sall bu bëggee rek moo tax su ma déggee ñoom Ousmane Tonkara nekk fii di wax ay dañuy def cagnotte pour jëndal Sonko benn blende bu leen yàq seen xaalis ci loolu <coughs> gars yi képp ku may déglu fii boo leen bëggee yónnee Sonko seen xaalis dem leen ci plateforme ngeen yónnee ko comme cotisation boo leen di def mais ay voiture blindée bu leen yàq seen xaalis ci ay affaire voiture blindée

de certains euh, euh, de certains euh, activistes bàyyi man, man man man man man yow Fatoumata Danso dans ngay jaar ba assurer sécurité quand même gars des fois tamit da ngay waaru daal bu ñu teg revient sur terre. loolu du idée c'est pas parce que sol nga benn yére militaire sol beere militaire rek yaakaar nga ne yow militaire bi muy wax mu naan bu leen xool li ma mel nii de dama am condition physique damay def lii damay def sécurité président Sonko foowul de man foo yow donc ñu dimbali nga am dafay foo foowul man maa seetaan laaj une heure de temps mu koy wax nga am dafa foo maa ngi bëgg je suis ma bàyyi sama liggéey man ne ko bul bàyyi sa liggéey Ousmane Sonko sécurité bi ma am doy na sëkk nit dof rek mën na nekk sécurité xam ñan ñoy sécurité Ousmane Sonko lu Macky Sall bu bëggé ray Sonko da koy ray gis nga nguur bu la bëggee rey munoo muusa ko waane bu du la rey nga may wax ay ay voiture blindée bu len yak sen xaalis ci ay voiture blindée bu len ñu sonal loolu yëfu tapet la yëfu tapet tapet mo ut ay voiture blindée Sonko daf len palé Sonko ngi ni demba ñu bari nank bu bul bu bul bu bul taxaw dañ ko ñëmé laal Macky Sall dee na Sonko dee na mooy Macky Sall dee na loolu mooy sécurité bu fi nekk di wax te xoolal Sonko bu deewee waxuma la Macky Sall waa APR ñoo la gën a xam ne ñoom ñëpp a dee ñëpp ay dee. billahi barke rasulullahi Sonko dee na amul moor naturelle amul accident Sonko dee na laa wax dee ñoom dañu war a yow chaque jour di wàcc ay kaamil di wax yàlla na yàlla may Sonko mu dund ba Macky Sall jóge fi waa APR. man sax dama don dama don wax Macky Sall su don doon Macky Sall au lieu may ut ay ay agents secret ñuy ay policiers civils ñuy ñuy ñuy surveiller Sonko man dama doon su don doon Macky Sall man sama bop maay out ben éli ben ben unité spéciale d'élite bo xamné moy projet protéger Sonko ba ñu melni ne Doudou Ka duñ ko laal man su don doon Macky Sall damay wax ni rek parce que Macky dafa wara a xam ne fu mu nekk deram yàqu na ci Sonko wa APR man dama leen di wax man ma misti Shake man lépp lu ma analyser da fay avéré wu loo leen man dama xam wa Pastef parce que ci ñom la bokk ma ngi ci internet bi 1 an et demi liggéeyu goruma goru yatuma limay def ci internet bi kenn defuko ko fi live yi ma def kenn defuko février lima def ci live ñom Ousmane Tounkara sax defuñu ndax man le 5 fév le 5 février lañu bëggoon jàpp Sonko xale yi génn ne kenn duko jàpp le 6 laa commencé def live le 6 février ba le 8 mars du un mois deux jours wala trois jours amul benn jour bu ma samedi dimanche sedd bi la woon sama appartement là. doon def laa doon nekk def live des fois ma def deux lives ci jour des fois ma def trois lives ci jour man loolu kenn au ko Sénégal ku ma indil kaamil ma waatal la amul kenn ku def live du 5 du 6 février au 8 mars ku ma indil te man dama sentiroon na yaa quelque chose va se passer affaire Adji Sarr xamuñu woon fan la dëgg bi féete ma nekk fa di def live di def ay analyse patriote di ma saaga waa waa affaire di ma saaga ñëpp di ma saaga ma ne leen Sonko dem dem na fa Issa Diène génn non non Sonko musul teg tànkam foofu cest à gis nga boo nekkee youtubeur wala nga nekk ngay liggéeyal senegal da ngay da ngay boo bëggee crédible da wax dëgg man dama ne saay saay Macky Sall yabuñu bay wax ne Sonko dem na suite boote yéen ngeen ne Sonko musu fa teg tànk Issa Diène génn musu fa teg tànk ku ma indil kaamil xaw ma nu mu ko waxee Issa Diène dafa wax loolu si suba si <laughs> si suba si Sonko génn def conférence de presse foofu la waxee Mortal Combat Sonko ne effectivement dem naa fa mais dama doon dem pour faju kon Issa Diène daanuwul foofu boobu laa commencé di def live di analyser Khady Ndiaye bu ñëwee wax lii suba mu ñëw wax leen ba El Malick sax dal Khady Ndiaye man tam ma dal Khady Ndiaye il faut être objectif dans la vie waaw mais ba ñu demee ba ci biir biir biir ba xool xool xool ci laa ne Macky Sall saay lii ma gis nii ci laa gis Macky Sall ma ne ko lii ma gis nii mënoo ci am dëgg bàyyil mu set Macky dëgër bopp waaye gis na li leen dal moo tax waa APR maa ngi leen di avertiraat loo leen xamul man ma wax leen ñun waa Pastef lan la ñu jàpp Sonko bu deewee Sénégal day takk te ñu bëri ñu dee ci APR ñun tamit ñu bëri dinañu dee ci ñun parce que dañ naan yéen a ko rey gis nañ ab dumbow assemblée nationale mu jël bite biteelu ndox Sonko boo demee dafa jël nii rek boo demee da kaa jël nii rek mais gars yi nee nañu affaire mystique la gis nañ Sonko. mu dem assemblée nationale ay maire xaw ma naan kii saawaay mairie ko gis nañu lool kon dañaan ñi dañ ko bañ gis nañu Sonko mu dem euh, Casamance tuudu ka songu ko ñaari yoon ba ay garde koor dé ndax stress lool tamit ñu koy japp gis nañ Macky Sall ne lu fi amon doot fi amat gis nañu demba rek demba rek rek rek rek démb rek ci mujj arrêter son corps. il était en état d'arrestation. Quand nous ñun waa nous ñun waa Pastef xam nañu APR dañoo bëgg de faagaagal Sonko démb rek moo ci mujj jàppoon nañ ko informé Khalifa Sall le Sonko est en état d'arrestation. procureur nous avons ngi commencé di jël di bind ay charge bu ñu bàyyi mu venir tey tey il a été arrêté pour trouble à l'ordre public wala ñuy wax insurection xaw ma lan yooyu lañ ko naroon jàppe kon ñoom ñun xam nañu ne ba bi ñuy sangoo suuf man bu yóbba ngeen may déglu waa APR yéen tamit parce parce que déglu leen même temps yi maa ngi leen koy wax ba ba ñuy sàngoo suuf dinañu jéem a faagaagal Sonko billaahi barki rasulullah faagaagal nag dafa bëri façon mën nañ la jàpp nañ sàcc élection yi ba doo gañe ñoom daal xam nga lan lañ bëgg Sonko daal du jël nguur gi waaye bu ñu demee ba gis ne mënuñu ko tëj bu ñu demee ba gis ne mënuñu sàcc élection len rek moo ci des rey ko ñi bëgg a rey Sonko nag dañoo bëri France bu ñu sañoon Sonko dee comme ni ñu def def sama Sankara compagnie yi. bu ñu sañoon Sonko dee Macky Sall bu sañoon Sonko dee waxuma ne daf kaa bëgg rey de waaye bu sañoon mu yeewu ñu ne Sonko dee na même ñii am waa patriote sax ñu ngi koy wax ñu naan Macky Sall avion bi di ñëw yàlla na yàlla na accidenté dégg naa Ousmane Ba wax ko foofu la yëf yi toll animosité bi foofu la toll ñoom dañoo bëgg ñu dee ñun tam ñu bëgg ñu dee gars yi dañu waxante dëgg man waa APR ay dëmm laa leen tuddee ce sont des des vampires dañoo bañ Sonko parce que daf leen yàqal du question ne dañ ko bañ parce que déedéet bañuñu ko de parce que joolaa la wala lii mais xam nga lan moo tax ñu bañ ko parce que ay baadool lañu Sonko daf leen di yàqal seen badaxal mbadaa seen ndaataatalax seen olala seen gundaadaat ak euh, ak ban bi mumbaay cakaay Sonko day ñëw di éclater ay biir nga toog mu naan la ay 94 milliards nga toog mu naan la lii la lale di yàq ay deal rek ay deal rek lay yàq ay baadoolo lañu xamuñu li baax ci ñoom na dëkk bi tàkk il s'en fiche ba pare dañoo ragal Sonko parce que Sonko nee na bu ñëwee day nangu milliards Sonko nanguwul dara nanguwul dara parce que nee na Macky Sall bu ko neexee mun na nekk Mermoz di dem di ñëw mais gëmuñu ko. c'est-à-dire nag dafa doy waar Sonko man xaw ma lu mu àndal xaw ma dafa mystique xaw ma ñaaliñ Sonko maamam ñaaliñ Sonko dafa am lu mu koy dee ci noppi xaw ma ndax yàlla daf ko wan nekkoon nii di nga nekk pré assurance bi nekk Sonko moo leen jaaxal Sonko dafa jaax man de man man xaw ma man du du sax ay affaire

sonn maître Babacar Diop mu ngi ci ginnaaw sonn mais xool leen Sonko macha allah yàlla bu ko ca dugg daf leen jaaxal léegi nag Thomas Sankara ni mu meloon loolu la mel booy xool dañoo xaw a nduroo sax dañ lay bañ iñaane la buñ ko bëggee rey dañ koy rey bàyyi leen ay affaire blindé wax yëpp mooy ñun dañ koy ñaanal yàlla na gudd fan man de man de que, demain, ba 2024 deewul feebarul ba pare gagné ay élection gagné bu gagner gagné légis Gagner les euh, gagné Gagner le lu bëri ci maire législative yi ñëw mu que c'est la première partie de l'opposition ñu dem 2024 te Sonko deewul feebarul dina Dina, tàccu Macky Sall lu bëri parce que dama len xam ay iblis lañu ay ay franc-maçon lañu tuba bi ñoo leen ngemb nguur jaral na len lu nek man dama len di avertir duñ ko mës may jam démb rek ci muju lu gaaw gaaw japp nañ mais Antoine Diome ba yaa ñàkk jom waaye nag Antoine jom liko patron mu wax rek lay def patron bu soxor la yor nek France di wax jappal ma ki jappal ma waxuma leen ko won parrainage non la demee. man chaque jour may yeey leen man ba may parrainage Sénégal la ma fekk Sénégal la ma fekk xaw ma fan laa ko déggee mais ba ma defee samay recoupement Macky Sall gëmul woon ne parrainage bi dina jàll. billaahi wax naa ko fi plusieurs fois mais kenn du def attention Macky Sall day nappe c'est-à-dire Macky Sall li li li Akhenaton di wax du ngeen ay nit mais effectivement dëgg la. parce que yéen Macky daf ñoo napp napp napp te Macky li muy def yëpp du ko gëm mais bu defee dara ba mu jàll dana parrainage bi jàll <laughs> gëmeewu ko France la ko fekkoon France en tout cas mu Europe mais li ñuy voté loi bi assemblée yëpp loi bi nañ ko Pape Alé rek démb confirmé ko loi bi voté nañ ko amul discussion amul débat amul dara Macky dafa yaakaaroon ne

dañ ko renvoyé gars yi bu ko renvoyé munul nekk ñu dem ba ci biir mu gis ne ñoom Sonko dañoo ci lu ñu wax ñoom Sonko dañoo daw làqatu loolu nag moo tax mu ra mu yaakaar ne ñoom Sonko dañoo ragal moo tax ñu naan la sa ennemi bul bul wane signe de faiblesse naa yi buy tàkk sax yow bul daw mais comme moom loolu la jàpp ñoom Sonko dañoo daw alors que ñoom Sonko dawuñu des fois dañ koy piéger. ñoom Sonko ñooy piégé Macky war na ko kii ñu ngi daw kon mu ne ah ñii dañu ragal Antoine comme ñii dañoo tàppat te booy génne génn pour moom bëriwul xalifa booy dem nañ ah booy dem nañ waaw léegi jàpp ko ñu xool ñu testé ko noonu la def Macky noonu la doon ragal la ragal bëggul xeex sénégalais la dafa bëgg dund Macky c'est pas un gars yi ngeen baal c'est pas un Alpha Condé qui est tellement koo xam dañ ko yàgg tëj nañ ko xama Alpha Condé ñaata nañ ko tëj tëjuñu ko 4 ans xaw ma 5 ans dama leen di laaj Alpha Condé du nit de tëjuñu ko tëj nañ ko cinq ans xaw ma ci moo ko tëjoon dictateur bu fa njëkkoon nekk 10 ans 10 ans laa dem bay wax ne ragal daan en tout cas tëj nañ ko minimum 5 ans kooku du nit 10 ans Alpha Condé pour moom deewoon na ba pare parce que waa da ko bëggoon rey.

parce que li muy nekk Gambie 22 ans yëpp dafa amoon lu ñuy wax paranoïa gars yi njiit yu bëri dañuy am paranoïa xam la mooy paranoïa une peur injustifiée parce que yow booy rey ay nit chaque jour nga def coup d'état chaque fois da ngay xalaat yow tamit dañ lay def coup de da ngay am paranoïa da ngay xëy benn jour nit na la si kii de da la bëggoon fexel mais yaay jàmm ñaata nit la rey yoo xam ne defuñu ko dara parce que day njott ne dañ koy rey am na ay ganayen ay ghanéens yu doon def immigration clandestine juum ci bato yi lañ luñ duggoon pour dem Espagne xaw ma ñu juum dugg Gambie bañ leen jàppee yaay jàppee dafa yaakaaroon ne ay mercenaires yu yónnee la pour rey ko daf leen rey paranoïa ngay am une peur injustifiée ñooñu moo tax dañuy gaaw a rey mais Macky Sall mosul dugg prison huit yi mu njëkk def yëpp dafa normal kon. xam na kañ la commencé am paranoïa le 8 mars bii ci la commencé dof mais wax Macky melul comme ñoom Alpha Condé du reykatu nit noonu nit koo xam danaan armée bi tiire leen nii nii nii nii amagul fit bi xëy na mois de mars bi am na xaw na ko troublé moo tax démba ñemewul bien que jënd na ay arme de ñemewul joxe ordre kon Macky dañ ko war a tàccu waaye est-ce que dina continuer parce que booy rey nit xam nga bandi deug deug nan lay commencer cigarette bandi deug cigarette ngay commencer après cigarette fo jëm yamba après yamba tam nga lal ko kay non ngay def di def di def di gën am fit non ngay def makki nak buñ ko buñ ko téllul arrêté mën na dem ba commencer am fit mais mom limu wara comprendre moy bu benen nit déwé Macky bu benen nit déwé

cinq ans kaso kan moo koy tëdd nekk nit dama lay laaj kan mooy tëdd cinq ans kaso nekk nit ba pare yaa ngi yaakaar na ci biir kaso bi sax mën nañu leen empoisonné nga dee ñu wéeruñu ñu de Macky Sall itam wéerul parce que le pouvoir corrompt faramaçon yi ñoo la dar compagnie pétrole di la menacé ah France di la menacé Macron naan la dafa li te ñun doole bi ñu am mooy Macron day waaj a jeexal Macron defe naa 2022 lay jeexal.

Ousmane Sonko am na nu muy demee am na nu muy demee am deuxième vague am mais nag gars yi deuxième vague bi xaar ma toog parce que maa ngi commencé sama gis nga gaa yi deuxième vague bu amee wóoru xam nga tax wóorul mooy li Sonko wax rek moom Casamance la nekkoon xam na la mooy guerre xam na la mooy guérilla guerre moom fu mu amee kenn nekkutul en sécurité Macky Sall du nek en sécurité Sonko du nek en sécurité population du nek en sécurité armée bi sax mën ci profito jël jël pouvoir bi. mel na ma deux secondes ma ma top xam nga armée bi sax armée bi mën na profito jël nguur bi j'espère que ngelaw li bëriwul bu bëree wax len est-ce que dégg donc Sonko. léegi stratégie bi xam mooy lan xam nga lan mooy stratégie bi pour gars yi découragé gars yi yàkkamti woon sonkoo jël nguur gi démb dangeen ngeen comprendre ne sonkoo li mu am démb dafa lu jafe la am démb Macky Sall dafa mel ne dafa dafa ñëw rek déposer les armes léegi nag ñaari issue moo mën a am. léegi Macky soit day jébbalu parce que waa APR commencé nañ jébbalu Gaston maa ngi jébbalu na dégg nga li mu wax Macky dafay dem ñëppay dem ah ñëppay dem waa APR da ngeen fi nekk rek ah da ngeen violent gouvernement bi yéen a gën a violent gis nga gis nga Gaston li mu wax yéen a gën a violent da ngeen violent Senghor fii la nekkoon ñu ko toppoon di ko xalamal te ñu ci bëri ñu ngi fii ci mbedd bi di am Abdou Diouf ah yéen da ngeen jàpp ne Macky Sall du fi jóge daf fi jóge kon ñu commencé gis ne ah Macky démb dafa dafa dafa c'est-à-dire li mu def démb dafa garaaw moo tax ñu mel na ñoom Gaston di commencé beddeem bu dee tamit dëgg la bu dee dëgg la ne juge boobu moo jël responsabilité am juge Saint-Louis bu dee dëgg la kenn commandé wu ko man pour man dañ kaa commandé mais bu dee moo jël responsabilité am jox ñu delloo ñu maatam tey ñu yeewu beneen juge jox muur loloy wone ne kon gaay ñu ngi commencé djebul ci Sonko Sonko Demba dafa ne le futur président bu ko rayul wa aper dañ ko gis motax sen conférence de presse bi Seydou parce que lolu defet la gis nga Noël kanam gi oh dafa triste ñom ñep ñu triste victoire bi ñu am demb bu len ko kay bu comprendre

ñu délo ñu matam 19 jours dañ koy dàq daa ñaa xoolal ñoom seen bopp commencé nañ dem ci télé di wax way non avocat Sonko yi suñu bëggé mën nañ dem ci juge bi maître Sey porte parole APR dem na ban télé la dem maître Sey est-ce que du TFM xawma ma fan la dem maître Sey ci boppam tok na mu ne non man je pense que affaire Barthélémy Diaz bi dañ ko war a renvoyé <laughs> TFM waaw xoolal mais Seye nee na way te pourtant ñom ñoo doon wax non non le 7 7 juillet lañ ko njëkkoon programmé ça n'a rien de de de politique mais demba merci Seye nee non affaire Barthélémy bi dañ ko war a ba février mané ah légui ngeen koy doog a xam en faram-fàcce la woon waaw ah mané ah légui ku ndobine ray sa mam bo gisee lu ñuul di nga daw le 1er février le 1er décembre fatalé ko du am le premier décembre du am daa leen ko wax lolou du wax ji de léegi nous avons le vent en poupe ñoo moomee vent nous avons le vent en poupe ñoo moomee vent comprendre pap Pape ndjay dama la bloqué gars yi dama leen di ñaan am yenn terme yo xamne bu ñu koy bind fi bu len ko bind comme limi wax ni le vent en poupe mo sax sama xel dem ci Pape Alioune Ndiaye fii la nekk démb di wax APR mooy xaw ma lan ànd xaw ma pour bugguma sax tudd terme boobu bugguma ko gis fii parce que day teexal bind ko rek topp ci pour pour mooy pour pour mais nit ñi dañuy añ nit ñi dañuy reer dañuy lekk nga nekk fii di bit no dinaa ko dinaa ko baal mais démb dama doon seetaan laay bi chaque instant muy bind mais yow mais quand dafa am terme yoo xam ne waruñu ko utiliser parce que am na ñoo xam ne dañoo seexu man damaa seexlu nga topp ci rek. di wax di wax motax ma ma ma ma ma ma ma bloqué ko mais dina ko débloqué terme boobu bugguma ko fi gis parce que day tel ni ñi xel man sama xel day dafa gaaw tay <laughs> nga ngeen baal ma bien que aper mérité nako xolal xoolal saway ño bañ dañ nee na ñu pousse élection yi kon ñu ñaf ndak bul tax ma sagu ko way ño bañ bu tax ma saaga ko mooy li wax kay ño bañ merci

ñu sacrifié man nag ñun dañoo xaw a ñàkk fayda loolu mooy suñu problème Macky Sall daf ñuy woo ci ay foo combat ñu ñëw mu teggi tànkam commencé nag di sàcc feneen ngeen bàyyi ko ci lii du dara lii lii dafa wane suñu doole mais Ousmane Sonko li ñu lay ñaan man waxuma ak ay Khalifa Sall parce que ñooñ da ngay waar Sonko Macky Sall bul ko may benn commune

même pas Koto la Medina.. Medina.. Medina.. Medina Médina nous nous nu nous nu mu tudd Médina Pape wax demba fi nga dem sous préfet bi leen nous recevoir sen document Médina Sabah..! muy Medina muy Matam muy Sud muy Sam tepp fu mu Ousmane Sonko nañu wax makki sàll dañuy bokk par force bu ñu bokkul mu génne wat xale yi te bu ñu génnee dañ fi jëlee makki sàll gis nga gis nga ku xamul buur saay dañ naan la buur ñaf na ndeyam dee kii di ma wax élection yi dañ koy dàq du ñu dàq ndeyam ñooñu ñëpp makki Sall moo leen di yónni du moom jot naa liir naan dañu dem di négocier bëgg a jàmm la ñu bëgg ci réew mi sànq rek am naa lu ma liir ci moom ma ne xoolal dof bi maa ngi naa sama xel xoolal xoolal dof yi rek du ñu wax ay jàmm ay lii ay négocier fii amatuñu lu ñuy négocier Ousmane Sonko dafa doy waar Sonko dafa muus a muus a muus a muus a muus a xam ne ni dix commandement yëpp xam nga ban moo ci gënoon am importance man fii nekk naa fi di yuuxu Sonko lu ne ma koy wax. parce que dafa sacrifier yenn yenn si suñuy dix commandement mu metti ma muy ban xale yi dañoo war a bind Sonko da ko sacrifier dix commandement Macky Sall dafa war a génn di wax ni dafa wax ne du mbokk Sonko ne garaawul ndàmpaayu xale yi Sonko ne garaaw xam nga sonkoo dafa muus Sonko dafa xam ne dix commandement benn rek moo ko ci intéressé xam nga mooy ban élection yi na am 2022 la waxoon décembre 2022 ñu def pression pression parce que instant yooyu première vague bi mu ngi woon dafa tàng jër Macky Sall il n'avait pas le choix Son Sonko dafa muus dafa am vision dafa xam li gën a am importance mooy na élection yi taxaw mu fexe ba Macky Sall ne 23 janvier mu tënk ko ci loolu parce que xam na ne élection yi mooy indi deuxième vague Sonko dafa xamoon ne élection yi mooy indi deuxième vague ndax Macky Sall dina wana jikko baadooloo Farba Ngom dina wane jikko baadooloo léegi jikko baadoola bi non Sonko du nit Sonko du nit man xamoon naa ni dina am lu am mais xaw ma woon nii lay amee xaw ma woon ne élection yi man xaw ma woon ne yi nii la amee importance parce que man damaa jàpp rek ne élection bu mënti am rek Macky Sall sàcc na mais ñoom Sonko ba ñu defee seen calcul bien que xale yu bari binduñu bien que xale yu bëri binduñu ba ñu defee seen calcul ànd ak xalifa Sall daf leen leer na ñooy gagné moo tax ñu piégé Macky ba Macky d' accord ci élection yi léegi Macky dafa d' accord ci élection yi dem ba ci biir Macky dafa dem ba ci biir gis ne def na erreur bu mag. mooy ne mënul gagner élection yi mais bado la bi au lieu buy satch mu satch lu touti mu muy jéem satch lu reuy ndax satch lu reuy ah li ñuy wax di di di satch satch waru saqat mais ñom ay sàcc ay satch yu saqat lañ parce que yow nan ngay démé ba matam boy satch satch satchal añam ci vol mu yëm fa nga satch fi Daouda jallo nek mo fa sax mën nañu ko baal mais matam bi yépp ngeen bëgg ko sàcc mais loolu bu indiwul deuxième vague lan moo indi deuxième vague pare wuñu foofu Barta Lamine am na ñoo xam ne Barta Lamine la ñuy wax <laughs> ku tal ne Barta Lamine Dias nga bàyyi ba mu dugal candidature am le 3 le 4 nga génne benn dossier boo xam ne il y a 11 ans la woon ba pare nga ne ko doo bokk loolu mooy jikko dëmm jikko baadoo la Sonko nag di di they cannot help themselves ils ne peuvent pas se retenir Macky Sall dafa tourner cuune tourner. il ne peut même pas se retenir de faire des erreurs aussi grossières que de vouloir convoquer Barthélémy Diaz au tribunal tout en sachant que le peuple le, pays peut s'embraser d'un moment à l'autre. Mais il est tellement nul que jaajëf ki Macky Sall dafa nul tuné, mais surtout aussi du question nul ak rek mais la haine viscérale qu'ils ont pour Sonko est telle qu'ils font des erreurs Je xam ne man mii sax man damaa waaru maa

mais démba li mu def li mu def démba ba pare daw gis nga booy xeex doo daw boo xasee reculer rek xale yi dañ lay ñeme xale yi li ñu jàng démba xale yi li ñu jàng démba mooy ne nekkate Macky Sall tapet la xaar leen ma gën na leen li Pape Alé wax parce que man damay jël ay not gis nga guerre psychologique dafa am importance ci guerre gis nga psychologie dafa am importance ci guerre gis nga nit bu la bu la xasee ñeme yàqu nga Macky Sall la léegi ñëpp ko ñeme acti activiste yi dañ koy wax baadoolan ko mel ni man tantam mu bokkal famille dañ koy ñeme dañuy dem ba nduulu mbàjj ñu tàllale leen micro ñuy xas Macky Sall maamam di ko xas maa ko sang su rabal sang ko ci la ko gëj gis bo ba légui la ko gëj gis bam ko sànkee ci tan Rebal ak Liberté ci famiyam dañ ko ñemee waa nduulumaa ji sax dañ ko ñëmé ba tal taal këram Fatoumata futu Tampi fexé ba Haalpulaar yi ñëmé mak Sall gis nga nit guerre psychologie la nit ñi bu ñu ba ba la rek mënut amutul lenn lo mëna def ba amat sa autorité mak Sall lenn rek la mëna def pour amat autorité moy mu nekk dictateur té lolu moy xaru dictateur moy nga ray ay nit yu bari loolu rek moo ko fi dese amutul lu mu mënti def munul joxe xaalis munul wax munul sàcc munutul def dara ba nit ñi respecté ko lenn rek la te nit ñi sax duñ ko respecté lenn rek moo ko dese rey ay nit yu bëri duma nit ñi dàq te loolu bu ko defee mooy dee na xaru na parce que Sénégal du peuple boo xam ne ñuy noot xaaral ma bindal leen li li Pape Alé Niang wax ak Idrissa Seck c'est-à-dire ñun xamuñu woon. ñun dañu yaakaar ne Macky Sall guerrier la mais Macky Sall du guerrier nekkate Macky Sall tapet la mës a doon saa yu jëlee émission décision pour taal réew mi day jël avion daw lan moo tax mu daw ragal la ragal la Macky Sall ragal la même Idrissa Seck da ko ay temps xaaral ma bindal leen Pape Alé nee na Idrissa moo ne woon euh, Macky Sall kii moo ko njëkk a wax aadama fay du sang royal ne coule pas dans ses veines parce que Macky dafa génn Ablaye Wade dafa non, Macky Sall diam la Macky Sall la famille dëmm la koy wax man mi sax dama non non lay nak vraiment nak fa bi nak ah légui mag la quoi ngi Sénégal ah wax la dafa ñaaw quoi président Wade diam mais Ablaye Wade dit wax de fawul de dafa ne Macky Sall diam la

dinaa leen jàpp yenu leen ba ci kaw yenu leen ba ci kaw dóor leen ci suuf fañuŋ fañuŋ fañu fañu xam nga fa waa caacaa fañuŋ fañuŋ fañuŋ fa waa caacaa Idrissa Seck ci la wax mu ne Macky Sall day géeree géeralu mais tapet la Idrissa Seck moo ko xaar ma diral leen man damay jël ay notes su may seetaan Pape Alé moom Pape du fàtte Pape Alé nee na euh, li muy jéem li muy jéem a wàccacaa boo koy song muy daw <laughs> Idrissa Seck avant muy transhumé nee na Macky Sall tapet la lu muy jéem a wàccacaa yi yëpp boo koy song muy daw mais Idrissa Seck Pape Alé nee na Idrissa Seck xam na xam na kan mooy Macky ñoo bokkandoo woon PDS mais Macky Sall loolu la wane Macky Sall dafa wane ne tapet la te loolu sax ñun daf ñoo arrangé parce que mu nekk tapet moo ñu arrangé muy taal suñu réew démb dafa wane tapet boo koy song muy daw xolo songoo génn mu jàpp déjà moom daw na dem France loolu yëfu tapet la parce que dëkk bi bu tàkkee Macky Sall fu mu mënti nekk amul pale la nekk amul Mermoz la nekk gars yi mën nañ ko fa fekk def ko nu ñuy def Alpha Condé wala ñu def nu ñuy def Kële nu ñuy def Moïse président euh, euh, euh, Haïti door ko bal ci bop mu dé Macky Sall bugul dé Macky nak fofu mom ñu koy applaudir ñun loolu la bëgg dañu bëgg mu nekk tapette parce que bu nekk tapette ça veut dire que il n'est pas un monstre Moïse monstre la Moïse président Haïti monstre parce que ku xamul né ya nga waja dé sa jabar mu ngi dé nga la nga mu ci nguur rek ñuy ray ay nit koku monstre la ñun bëggu ñaanu ñu yalla Macky Sall nekk mo na nekk tapet comme li Idrissa Seck wax nee na Macky lu muy wàccaa caay man gars yi damay jël ay notes man su may su may seetaan Pape ale damay bind rek parce que Pape Alé dafa dafa garaam nee na lu muy lu muy jéem a wàccaa caa boo koy songu muy daw Idrissa Seck moo ko wax démb Khalifa Sall daf ko song Déthié Fall song ko rek lu gaaw gaaw en 15 minutes 20 minutes ñu bàyyi Sonko tapet bu rëy la. te gis nga guerre psychologique dafa bax ci nit Macky Sall dafa wara a gëm yàlla xam sénégalais léegi dañ kaa ñëmé wa APR loolu la ñu xam Gaston Meng nandité la gis nga quand tu es dans un bateau qui coule il faut il faut quitter le navire bo nek ci benn navire ci benn gal muy sol ndox bo yoré bouée de sauvetage tebal nga jéem dem ñu mous ñi nek APR ñu ngi commencer tepp benn par benn Gaston mi ngi tepp tepp na. li mu wax leer na yaa xam mbay mi ngi commencé tëb moom tamit juge yi nekk Saint-Louis xëy na dañoo tëb juge bu nekk Mbour delloo ñu yow askan ñu ngi tëb yenn sous préfet préfet yi bu yóbboo ngeen commencé tëb parce que ñaari at moo fi dese Macky Sall au plus tard léegi nag xaw ma Alioune Tine nee na dañuy pousse élection pousse ñu dara dara lañ jul pousse gis nga Ousmane Sonko bu dof dof loo ba yàqal boppam boppam la ko def ñun suñu yoon nekku ci

gars yi Macky ay milliards la yàq dañ jóge fii jox Fatoumata Fouta Tampi moom ngeen yàpp Fatoumata Fouta Tampi moom ngeen yàpp moom ngeen xamal mais lu tax activiste yi ñëpp noppi man daf maa jaaxal gisuñu Clédor gisuñu Alioune Sané ba may balaa may dee tey ñu nekk bi di bind ay ay communiqué di wax naan Sénégal dëkk jàmm mais Alioune Sané xanaa yow doo doomu Casamance. yow lii moo tax Fadel Barro jox la jox la Y'en a marre Aliou mu nekk fi di bind ay ay communiqué Sénégal et puis pays de paix du gën a gën a fii pays de paix la la la gisuñu leen fenn gisuñu leen sax ci marché bi Macky Sall ay milliards la yoon yor rasulaay man activiste seen tekk tekkaaral bi jaaxal na ma lool dëkk bi di takk ñëpp ne dëkk bi day takk Ousmane Sonko di génn di xeexal boppam. gakku di xéxal bopam bañ koy bañ koy dóor muy daanu di galgal muy daanu ñu nan dafa ak yooyu Khalifa Sall di fippu ak kan Barthélemy Dias ben activiste lañ fa gis muy Karim Khouakhate ñep xam nañ Karim mom show lay def c'est un showman Karim Khouakhate boobu ngeen moytu len ko de moytu len ko de Karim Khouakhate showman la barki rasul lay ana activiste ana clé d'or ana dafa febar kooku géeree la mais man dama kaa gëj a dégg Clédor moom xëy na daf feebar mais ay Assane Diouf ana ñu lu tax indaale ñu seen nit dañuy jaay dañoo am xaalis ay géeree la ñu ñoo ñoo yor koñ ba ñoo moom koñ ba doo jël benn njaganjaay sol ci cinquante personnes nga ñëw dem ci dem caravane waxuñu leen ngeen dem tribunal de dégg naa am ñoo xam dañu ñëw rek dem tribunal am na ku ma ne Karim la demee mais Karim dafa mel ne gis naa ko ci kii bi lu tax jëluñu seen njaganjaay sol ko ba mu fees dem keur Barthélemy Dias activiste yëpp xaalis bu weex tàll la ñu yor Sané anamu fa la nekkoon Fou Malade fa la nekkoon Damboj ah mi ngi fa merci Damboj mi ngi fa merci ñeneen ñi fa la ñu c'est louche qui ne na dam mi ngi fa d'accord même Karim sax bu dee dafa def show sax mo tané ñëwal sax nga ñëw sax mo tané xëy sax Karim deful show mais. Karim jikkoom moo tax ñu koy ñu koy waxal show parce que danga nga fiy xas président Sonko da nga ko xas di ko tutoyé moo tax nag fi mu nekk nii loo def ñun du ñu xam xamuñu on ne sait pas mais au moins yaa ngi fa woon mais Assane Diouf ana mu ana Thiat fan la nekkoon ana Fou Malade ana rappeurs yi ci sax mi ngi ko doon wax nit dof musiciens yi kenn gisatu leen léegi. ana ana ana njaago yow yow booy Casamance nga dib di foo nekkoon ana jawket yëpp du da ngeen génnoon ci événement mars yi parce que événement mars yi yëpp ñu ñuy seetaan Algérie di ñu wane ñëpp di ñu wane ñëpp ne Macky Sall jeexal na ñoom ñëpp ñu ñëw Birane Ndour di bind Free senegal ana mu ana Birane Ndour sa papa war a génne album di ñu jéem a nelawal suba. dégg naa lu gaaw gaaw ñaan way way way na coon sekk patati patata ñun dañoo faale Youssou Ndour ak ay album Youssou Ndour kañ la laat génne album novembre di ñu jéem a divertir divertir bu génnee wayam yu neexee yi ñëpp commencé fàtte mais instant yi kenn talul Youssou Ndour Youssou Ndour décembre nga daan génnee ñun décembre Sénégal lañ daan fekk ñu yàkkamti Youssou Ndour génne album six morceaux bu ko génnee 31 décembre ñu def li ñuy def di waaj a dem euh, wala 24 décembre ñu lekk suñuy ginaar. suñu ngi rappelé sama neuf cousin boobu lañ doon tok teg suñu ataaya ñu rappelé euh, euh, ci mujj album bi mol ba dem na geej xobalan mol bobu ma ngi non mol bi mo ci gëna neex ku nekk am chanson chanson favori oh non mol bi mo dax ñu décembre mais le 12 le 10 novembre Youssou Ndour di génn album le 12 ngeen ne ngeen ne loolu coïncidence di du coïncidence dañu daroon faagaagal Barthélemy Barthélemy lañ daroon faagaagal ñun ñu ay ngaaka Sénégal dafa bëri ay naafeq barki Rasulullah yéen ñi fa am ay kër ay Waly Seck am ay ay building Faramareen boo leen bañee boo leen bëggee seen building Faramareen yooyu ngeen enjoy ko seen oto yu baax yi ngeen enjoy ko bu yóbboo ngeen génn ngeen xeexal Sonko mais booleen leen jéem a sacrifier Sonko dëkk bi day tàkk de seen investissement yi ngeen def foofu yëpp da koy ñàkk ku bëgg Sénégal ku bëgg ku fa am ay kër yu bëri am fa ay business bi yóbboo ngeen dooleel Sonko yéen ñëpp booleen leen dooleele Sonko rek Macky Sall day daw mais ni mu jàppee sëriñ yi xëcc ko ñu ñu ànd ak moom ah yen yéen yéen ngeen nekk fi nekk ci touche bi naan dañoo neutre parce que da ngeen ragal Macky Sall muy Dip Doundou Guiss muy comédien yi muy artistes yi nit dof mu ngi leen di interpellé génn leen mais bu ñu gisee Wally Seck waay waay def ay concert Cheikh Ba ah politiciens yi di leen jàppale ñu def yéen a ngi yéen a ngi nax seen bopp de bu leen dooleel Macky Sall de Macky Sall bu reyee Sonko Sénégal day takk benn dëkk benn kër man sama kër papa kër ñëpp ay takk li am Syrie moo fay am. lu bari sax dinañ gàddaay xëy na commencé génn Sénégal Casamance ay gaay yu ay guerrier ñoo fa nek du ñu nangu ñu ray Sonko parce que lay muñ nañ guerre civile lu leg muñ nañ ko ñu ngi tepp ci mini ba léegi sen dernier espoir sen prophète Ousmane Sonko ngeen ne na ngeen koy jema ray te Sonko Casamance mom Sénégal yépp ko bëgg genn leen ngeen jappalé boy bi xalé bi jappalé leen xalé bi mo gën ci yeen de Macky Sall seytaane la iblis la mom bu talé réew mi day jël avion dem yonam gis nga bu réew mi buy tàkk du ko fi sax fek même bu tàkkoon ken du ko jege Macky Sall kenn du ko jege parce que armée française dina ko wër balaa dara di xaw ñu extirper ko mom ak famille am dugal ko ci suñu avion yobbu ko dara du ko ci fek waye bu boba Sonko bu xasee dé fi billaahi barki rasulullaah ni ko Ousmane Tounkara waxee rek noonu lay amee lépp lu mën a tàkk Sénégal day tàkk may wax ñu naan ma ay blande ñun soxlawuñu blindé pour président Sonko on n'en a pas besoin artu bi Pape Alé Niang di artu Ousmane Tounkara di ko artu Kayz Fof di ko artu ma koy artu boo leen ko xamul yéen waa APR ñun ñu xamal leen ko jëmba yéen ngi sànni seen lacrymogène di tiire ay bal muy dal ci ci oto Ousmane Sonko juum leen ba rey Sonko ngeen bëgg mouridisme continuer Touba am jàmm màggal Touba lépp di am protéger leen Sonko te ngeen bàyyi seen diil yi ngeen di def Macky Sall iblis la milliards yi mu yor Sonko bu ñëwee milliards yooyu lay yor Sonko bu deewee senegal du nekk ci jàmm loolu da ngeen koy dugal ci bopp Macky Sall ñun nekk ñu fi naan dañuy jéem a protéger Sonko ay duudukaat. wax leen ko mu yem wax leen ko mu yem naa fekk naa fekkisme moo bëri activiste yi dafa mel ne Macky Sall da leen jox xaalis bu weex tàll loolu lay nduru man loolu lay nduru ñu ngi génn di attaqué Sonko wala boog ñu bëgg ñu jox leen ci xaalis wala kuñ ci amal dossier nga bëgg ñu bàyyi sa dossier Karim xa xur xàq ngi nii ba mu commencé attaqué Sonko ci la gagné procès ak May ñaan du hasard. du hasard Mati trois pommes mi ngi attaqué Sonko ñii ngi naan dafa bëgg bu ñëwee Sénégal dossier boobu mu am fii ci affaire visa yi ñu bàyyi ko. Françoise Hélène Gaye gis nga ko léegi mu ngi dugg Sénégal di génn te bu njëkk ba daan saaga Macky Sall lu ko neexee ak Marème Faye mais ba mu commencé attaqué Sonko ci lañ ko bàyyi muy dugg di dem wax ji yëpp loolu la en tout man li may wax président Sonko.

gañe Dakar gañe Mbour Géejawaay Ahmed dara nekk euh, maire euh, Mahecor Diouf xaw xam Sam Notaire la nekk xaw mu gañe ko Taal gañe Mbour saint lui yow askan bi gañe fa ñu ci faay leen parce que Macky n'a pas le choix il faut que ñu teg ko pression marquage à la culotte bi Sonko di wax duñ ko may dara ba 2024 2024 dafa sori Sonko da nga naan ko élection bii ñu nekk nii fii bala 23 affaire bi ay étape la xam nga la moo tax ñom ñom ñoom kay sof yakam man yakam tuma parce que pour man 2024 amul importance man yakam tuma parce que dama gis ni Sonko dafa nous il est c'est un grand stratège fexena ba teunk Macky Sall ci 2023 man léegi ba 2020 man ki la gis xol na 2023 ci le 23 janvier man léegi le 23 janvier moy sama moy sama 2024 comme Nico, qui effectivement Mahmoud Saleh il a raison le 23 janvier bi, 2024 xoolatuma gis marquage à la culotte bi soo ko di wax commencé Si buñ ko dara bu bu bu defee se na commune na bok, sax bu a parce que le Dakar gagné nañ ko ba pare ndax mu ñu may démb campagne électorale bi mu ñu may loolu moom ku ko am da ngay gagné Dakar xam naa Diouf Sarr mi ngi saaga bu dee da ngay xeex kay da ngay jàpp Barthélemy jàpp ko mais jàppuloo Barthélemy bàyyi ko léegi nga defal ko campagne électorale fan nan laay jaf ba gagné Dakar léegi xam nga nan la ñu mën def ba gagné Dakar sàcc élection yi wala ñu dañ koy dàq am na ku mën ne léegi Alioune Tine mais kooku lan lan mooy fonction sax xanaa du kookoo nekk Amnesty International tin tin lan wax leen ma lan mooy lan mooy kii am fonction am wax leen ma tin lan mooy fonction am muy wax dañaa ñu dàq élection dàq ñu ndeyam avec tout le respect que je vous dois dàq ñu ndeyam bu ñuy jéem a dàq élection yi dañu déclencher deuxième vague duñ ci xaar kon non dama koy jaawale ak beneen tin bi kan moo nekk am ni Amnesty International dama koy jaawale keneen ki ki nekk Amnesty International nu mu tudd amul seeral amul Noël. comme niko ko pap papa pap Alé di waxe amul seeral amul Noël. ku ma ko timbax ma rimbax la marquage à la culotte duñ ko may dara ban 2024 duñ ko may dara ba janvier 2023 gis nga ñu commence jox nañu matam en deux jours jox nañu matam. jox nañu ñu waaw gasama dama ko jaawale waaw kay waaw Alioune Tine lan la fumu toy kon Alioune Tine Tine lan dama koy jaawale ak gasa xanaa dañoo xaw a nduroo lu fu mu toj Alioune Tine fu mu toj di jéem a reporter suñu election di yàq suñu démocratie pourquoi ñuy reporter élection lu ndey reporter élection créer benn chaos pour reporter élection di gën a sàcc fiche électorale bi non sama ba faible non dafa teel faible xaar la ma génne sama pare guma tey sama yaram dafa tàng pare guma sama batterie mënul faible sama yaram dafa tàng ñii dañu yabaate billahi barke rasulullaay ku xamul buur saay na olof njaay la ma wax ñu ne buur ñaf na dee dama ko jaawale damay jaawale Seydou Gassama ak Alioune Tine xanaa ñoom ñaar dañu xaw a nduroo xaw ma lu ma leen di jaawale kii ku muy yab fu mu toj moom lan la lan mooy fonction am lan la wax leen ma lan la ak ban parti la bokk mu naan day jéem a reporter suñu élection sëgam dëgg la am na ko ko fi wax de fu mu toj xala man maa ngi branché téléphone bi ma warul branché fan la toj bay jéem a reporter suñu élection reporter wu ñu ndayam gars yi ngeen baal ma xam nga Pape Alé nee na réewande Macky Sall dafa réew wax na démb ba ne xaw ma réewande aw xaw ma lan a ah, APR la ah la ah tax kay xanaa benn bokk yaakaar la bokk ku xamul buur saay na lan la Njaay olof Njaay wax <laughs> olof Njaay nee na ku xamul buur saay na man wu ma de man du ma saaga man du ma saaga saaga yi dama koy bàyyi ak Cheikh Cheikh Assane laa koy bàyyil gars yi saaga yi dama koy bàyyi ak Cheikh Assane Diouf ah la bokk ah non kon koy bokk waxu APR moom jarul dóor sa doom du ñu reporté ndeyam VDM mi ngi fi de dañuy taal VDM de gis nga boo boo <laughs> boo yi dañoo gën a am fit non c'est-à-dire Macky li mu def démb sax xamu ko daf ñoo yokk fit boo yi seen yaram dafa tàng sañ yaram mooy xasan pour xeex gis nga réew am na foo xam ne boo fa tolloo nga dee sax moo ko gën c'est-à-dire Sénégal ma na mu ngi koy wax. yéen yàlla moo leen bëgg mais bëgguleen seen bopp parce que du ngeen ay nit ana doon koy wax yàlla moo leen bëgg mais du ngeen ay nit billaahi du ngeen ay nit fii laa ko wax le huit le huit mars ñu may saaga patriote di ma saaga man njaagu Sonko man man booy xamuñu dara ñun ñoo leen mag ñoo leen dàq jàng ñoo leen gën a voyager ñoo leen dàq analyser ñoo leen ëpp baatin ñoo leen gën a scientifique ñun soxlatuñu àdduna dara man àdduna bi la laa fi namm nammuma dara naa dee suba lan moo tax ma nekk fi di saaga Macky Sall man sama famille faalewu ma ko am na ku ma naan sama benn xarit foofu laay jëndee samay verre mu naan ma bàyyil sa jabar ji ngay tudd ma ne ko man damaa faale sama jabar nañ ko rey suba am naa doomu deux ans doomu deux ans Grand Dakar la dëkk ma wax leen ko waa APR ngeen dem dem leen ngeen rey leen suba foofu la ma combat bi toll sëñ suñu kër HLM laa dëkk sama waa kër sax jubóo ma ak ñoom par ndax dañ maa trahir dem leen ngeen taal kër googu <laughs> bàyyi leen sama papa 99 ans la am comprendre te am na ñoo xam ne sax APR la ñuy faral ba far sama waa kër pour vous doo ngeen ay nit. barki rasulullah li li li li li Akhenaton wax dëgg la du ngeen ay nit rey leen ñëpp man fekk leen ma fii ngeen dóor ma bal mais balaa ngeen may dóor bal li war sama message dina jàll sama jabar sax waa ji daf ma koy wax chaque jour damay xuloog moom damay dem foofu du may jaay ay verre mu naan ma ay non dama lay dégg chaque jour nga sama jabar fii la dëkk ma ne ko waay yow saa waay yow yow yow vraiment nag yow xamoo ah. sama jabar soxna Jaañ la tudd Grand Dakar la dëkk demleel leen bu leen neexee ngeen rey ko bu loolu day daf may daf may jox raison daf may jox raison ne ñi ay ay dëmm lañu man chaque jour damay wax ne ay dëmm lañu bu leen jaralee ñu rey suñu yabaat lu tax parce que dañuy wax dëgg dañu bëgg defar Sénégal ñu bëgg rey suñu famille mais loolu daf may jox raison man dañ may jox ña te ñooñu ñuy rey ñu ci bëri APR lañu <laughs> parce que Rasoul laay du ngeen ay nit.

barki Rasul laay yàlla daf leen bëgg indi leen président Sonko am na fu mu ko liiree dafa naa kay sof la xaw ma am na ku doon def laay mu ne Ivoiriens yi dañ koy woo Maliens yi di ko woo pas Maliens yi naa yi di leen woo di leen wax yéen yéen chance bi ngeen am buñ ko amoon président Sonko bi ngeen am bu ko amoon yéen Macky Sall nguuram jeex na yéen a ko bàyyi ci fii yéen a ko fi bàyyi xamu leen loolu. Sénégal dëkk bu ndara jekk la waaye am na lu muy demee di mus a jekk xam nga des fois nit day jekk ci muus waaye muusul Sénégal dëkk bu ndara naat ndara nice ndara am liberté billaahi barke rasulullah yéen xamu leen ne fi mu nekk nii ci tournant la ñu nekk ibliis a ah, iblis ak ak ak baax ñooy xëccoo Sénégal iblis di xëcc baax di xëcc te fi mu nekk nii yàlla moom day seetaan de Sénégal mën na basculer mel ne Haïti yàqu ba faw billahi war ki rasulullah yéen dans sama yabar dama koy wax chaque jour ma ne que yéen xamu leen Sénégal dafa mel ne paw de keg dafa mel ne ku toog ci dynamite toog ci dynamite ay xal wër la mën na exploser à tout moment Macky Sall mën na taal Sénégal ba mu mel ne Syrie Syrie dafa yàqu Syrie am na quartier yoo xam ne boo fa duggee amul benn kër boo xam ne bomb laalu ko Sénégal foofu la ñu jëm surtout nag boo leen reyee Sonko Sénégal dina toog vingt ans du dootul baax terroristes yu jóg fa guerre civile am fa dictature am fa mooy bu Macky Sall réussir lu mu bëgg def noonu la na demee waaye boo leen góor tuuti mars la waroon commencé boo leen góorlu tuuti rek nangu seen réew sonkoo nag chance bi ngeen am mooy dafa baax Sonko bu baaxul woon day nangu Sénégal le 8 mars la koy nangu waaye dafa xam ne man bu ma doon Sonko Sénégal le 8 mars lañ koy nangu su ma ci waree dee dee ci xëy na dina am ay yeneen moor waaye dama koy nangu ci APR man su ma doon Sonko damay nangu Sénégal xalif général ba buy woot sama téléphone dama koy fay sama téléphone laay fay su le foofu fi ma toog foofu laay toog ne gars yi ñëw leen nga def bouclier fii fi ma dëkk buñ ñu waree rey ñun ñëpp ñu rey ñu waaye APR Macky Sall dinañu abal suñu réew tey su ma doon Sonko noonu laa koy doxalee waaye Sonko dafa bëgg Sénégal xam lan mooy guerre démb rek wax na ko xam lan mooy guérilla xam lan mooy ay bal tak tak tak tak Babacar da koy wax xam lan mooy guerre civile ak couvre-feu 6 heures ñu ne la dugal ci réew loolu tax loolu la bëgg éviter Sénégal moo tax victoire am da koy def ay étapes di gagner par étape te Sonko c'est un stratège ku gis victoire bi mu ñu indil démb da ngay xam ne kii c'est un stratège moo tax ñoom kayis foofu bugguma leen tuutil de kayis foofu bugguma ko tiitil bugguma tiitul Akhenaton bugguma tiital Maam Sène mais ñoom dañoo yàkkamti mais Sonko nu muy nangoo Macky Sall ci mag ci nu muy nangoo Sénégal ci loxu Macky Sall dafa yéeme barki Rasulaay dafa yéeme Sonko nu muy nangoo Sénégal ci loxo Macky Sall dafa yéeme parce que ku mën a toog mars nga jekku nit ko nit précipice la taxaw mars avril mai juin juillet août septembre octobre muy ñaata 7 mois ñu ci novembre Sonko muñ na mois di lal stratégie rek Macky Sall am patience di

Sonko bu ko neexone bañu jappé su kilifa bu ko neexone mu jëlee fi mu mu libéré kilifa su jour boobu comme ni mu libéré Guy Marius Sonko mo libéré Guy Marius dañu jàpp si kilifa Sonko ci conférence de presse bi rek la ñëw parce que mënu woon baña ñëw motax Karim Xrum Xax cuune la buy attaquer Sonko daf ñuy jaaxal cuune la Sonko bu bëggoon libéré bu doon dafa faral kilifa da koy libéré ci saasi mais il faut que il fallait que mu ñëw conférence de presse bi il fallait que Sonko ñëw kon xarit bu mu xaaxa bu mu ci jéem a profité pour jéem attaquer Sonko Sonko bàyyi bàyyi mu parce que sacrifice dafa xam ne combat buy am il faut il faut mu am sacrifice te kilifa li muy def sacrifice la dina gis njëriñ bi après kilifa Simon ñoom dinañ gis njëriñ bi après mu bàyyi mu jàll Guy Marius Sagna Sonko bu ko neexoon. warul ji ma def Saña waruloon sax def benn jour kaso mais Sonko dafa bàyyi mu jàll xam nga loolu yëpp pour lan la mi ngi lal plan am Macky Sall di gën a fu ñaaral yaakaar ne dafa am doole Sonko tapet la man mii sax damaa mer man lu ma ay ay lu ma mën analyser analyser gisuma woon li sonkoo di liggéey gisuma ko woon parce que maa ngi naan tekk tekkaare bi lu ko waral ah sacrifier kilifa Guy Marius ngi nii ñu tëj ko pourquoi. nekkete yoo li ñuy wax yëpp Sonko Casamance la visé mairie Casamance ñoom dàmbooj jënn fii di yuuxu di tëb di dal non warul dem Casamance bu fa demee dañ koy toroxal loolu baaxul ci moom non Macky Sall di jël ay milliards duggool ko Casamance da koy gañe Sonko noppi rek dem Casamance duudu ka nag sax moo tax Sonko wax

jàpp te euh, jàpp bu ñaaw la ko jàppee ndax kilifa bañ koy waaj bañ koy filmer c'est pas normal ñu koy filmer Bougazelli filmer nañ ko mu wax li mu wax xas capitaine Touré xas gendarme yi ba ñu teg pression gendarme yi def enquête mais terewul est-ce que Macky Sall jàpp ne Bougazelli jàpp Sonko noppi gars yi ragal yaa yaakaar ne Sonko dafa ragal wala xalif man sax dama ne ci léegi Sonko Khalif général tëkku na ko maa ngi fàtte. non Sonko du nit ndax dem na ba dem na ba euh, toog euh, seigne Mountakha seigne Mountakha wax ko wax jo xamni ñu bari dañ na da ka xass da ka sermoné Sonko tok ci souf mu nan ko ah bul wax ay yefu xaru ndax bo xaro safara nga jëm affaire yoy bëgg nguur bu mu tax loolu Sonko Sonko muñ ko ba ki sax genn ki sax genn biram Souleye xam nga biram Souleye mom communication dafa dess mu dem ci. ci ci ci ci ci ci ci pap pap ngañ la dem xaw ma naan non Sonko ba muy dem Touba sax ñun yëguñu ko pour wane ne Sonko dafa def erreur yëguñu ko buñ ko yëgoon du du du waxee noonu affaire genre wax yooyu bu dem soleil mënul communiquer jomaay mooy guerrier bi mais naa ñëw ci jomaay après ba bu mu ko fàttewul Sonko di muñ loolu yëpp parce que lenn la gis coalition Khalifa Sall nag ñu koy gërëm xaw ma traître la xaw ma du traître waaye dimbali nañu de pour man du ndax coalition bi booy Khalifa Sall Moko, Moko def après dem France Sonko eggal li dégg naa liggéey bi Sonko Jigen bi la gis mais quand le Jigen short, ba ko ba ko Tu cokkaase nak. ci le Sonko yeew Sonko bi hamon. mortel combat Sonko ci le yeew def ben conférence de presse ne ku boo yëmbal boobu naan daf fi boo fi ñëwee dañ lay daggate <laughs> on va te couper en mille morceaux <laughs> on va te renvoyer on va envoyer ça à ta mère <laughs> gars yi nag ma ne ah suñu gaynde bi yow na ay lay la ñun kii lañ kii lañ doon xaar tekk tekkaaral jeex na yamu fa mu ne Macky Sall looy xaar ci Adji Sarr woo mais avant boobu aussi bind na avocat bi parce que boobu Sonko ko ngi préparé pour Casamance. après gars yi di ko journalistes tamit ils sont très intelligents ñoom ñëpp benn question la ñu am est-ce que tu vas être non journalistes ils sont forts parce que man mil ñii sax bon maa ngi wax ne effectivement Sonko war beaucoup bokk Casamance parce que man loolu la Dambou ba mu génnee mu ne Sonko warul bokk waaye ma ne mais Dambou est-ce que ça va loolu laa wax ma ne est-ce que ça va Sonko beaucoup Casamance rek ñu gagné ko ñu ñàkk ko mais day ça va faire day day day day day euh, ban terme laa utilisé woon. Hein? la Casamance va être en ébullition Casamance day day day bax Dambodj ma kon est-ce que ça va journaliste yëpp ban question lañ doon laaj est-ce que di nga nekk candidat est-ce que di nga nekk Sonko ne leen xaar le 29 pour man Sonko du ñëwaat le 29 man yaakaaruma woon Sonko day ñëwaat pour man affaire Casamance Sonko d'ailleurs gars yi def nañ fake news ñu ne Sonko du bokk def nañ fake news ñu ne Sonko du bokk ba man sax ma commencé na ah wa bu bokkul de xëy na xam na li def. waaye Sonko ba mu ñëwaatee ne dafay bokk foofu la lépp changé ci la Macky Sall jaxasoo Doudou Ka jaxasoo Sonko c'est un ci la nanguwaatee doole bi mais Macky Sall bu yemoon foofu rek mu neex Macky sàll dafa paniqué ne non non du ñu bàyyi mu gañe ci lañu ñu jëfru Farba Ngom mooy li mooy li kii di wax li kii di wax Gaston Meng li muy wax dëgg la dafa am ñoo xam ne dañoo wër Macky Sall xamuñu gàtt te des fois dañuy def ay affaire peut-être que Macky Sall du ko yëg parce que lu doon ne maatam Farba Ngom jënd waa loolu Macky Sall pour man pour man Macky Sall xanaa warul mën a diggal loolu fa Farba jëndal waa ji mu sàcc suñuy document daw ak moom yeewu askan bi du bokk maatam Macky on le met sur le fait accompli Si ko dugalee ci situation mu gis au lieu rectifier sur le champ mais ah mais Farba c'est bon mën na am dina jàll xaaral mën na am dina qui Macky loolu koy day def day dañuy def ay rectifier ko day day ah, na ah mu dina mais man loolu ba ko dama non c'est pas possible Macky Sall cuunee ne nii lu dal ne maatam nga ne Sonko du bokk yow xanaa xamoo kan mooy Sonko yamu fa non boobu sax mën nañ a Farba maatam bi mën nañ a Farba mais nag lu dal ne Dakar nga ne Barthélemy Dias du bokk foofu nag foofu nag moo indi moo indi li am démb li tax man nag man man je je tire euh, euh, mon chapeau ci Sonko. Sonko démba li mu muñ yëpp de mars à novembre démba daf ko récupéré waat gars yi ngeen baal ma mu commencé dox parce que mu ngi commencé guddi démba nag ci la Sonko mais Sonko victoire bi mu am démba yéen mënu leen ko sax xam gaay yi billaahi wallaahi taala parce que saa yu Sonko génnee di xas Macky Sall di wax ak Macky Sall mel la koy wax ak doomam dootoo fi laal benn opposant duñ la ko nangul

li ci gën a yéeme mooy ñu jàpp Sonko gars yi booy génne rek Macky Sall bàyyi ko loolu loolu mooy Macky Sall vraiment dafa découragé man loolu laa ko jànge Macky Sall waaw gars yi sama batterie mu ngi jeex nag 10 pour cent boo dama yàakoroon ne maa ngi chargé nekk te nekk te sama chargeur nekkati sama chargeur bi dafa dafa dafa dafa fayaan ah. xaaral ma xool waaw nekkatee nekk léegi nag Sonko gars yi Sonko euh, xaar la ah mu ngi ah. waaw daf leen daal mën na am dina dina sob bu sobee woon garaaw léegi léegi gars yi euh, Macky Sall dañ ko war a tàcc dañ ko war a tàccu ñoo nit bu defee lu baax da koy wax bu ko neexoon mu dëgër bopp topp meram parce que ñu bëri dañ ne Macky bu màttee du bàyyi bu ko neexoon mu topp meram damay jàpp Sonko na dëkk bi tàkk bu takkee rey leen ma booy ma def comme yaay jàmme nekk dictateur mais Macky defu ko waxuma nag du ko def dans l'avenir comme defu ko dañ koy tàccu kon loolu victoire la wane na Macky Sall en fin de compte décision de day dem Je sinon live bi perdre parce que 10 pour cent moomu des léegi faire ci des Sonko bul may Sall dara dara élection 23 ñun étape par étape la bu ko may dara dara dara ci ci maire

nous avons fait après nous ils se sont couchés Sonko momentum bi ñu moment Nous dañuy nous ngeen continuer ba Macky Sall bu bu wax ngeen de ubbi leen seen avons fait na élections yi jaar yoon bu Nous am Nous nous inscrire pour législative législative nous bu nous cinq mois ñu ci faayaat ko bamu bax après Macky Sall dina jël bagage dem ñu am jàmm mais bo leen fi nekké di layam layam yi bàyyiwaat parce que Macky Sall du bàyyi mukk Macky Sall xam nga kañ lay bàyyi boo defee am na am na loolu neex na ci Macky limu def démb vraiment maa ko ci félicité parce que bu ko neexoon mu joxe ordre pour ñu ray ñu bëri Sénégal takk ñun bëgguñu lool mais nak Macky il faut ngeen dimbali Macky il faut nga tek ko pression vous tegul pression rek du xam lu def comprendre wax ji la Sonko bu ko may dara ne election yi jaar yoon ñu gagné len bindal xalé yi loolu bu ko defé après Macky Sall bu ko gagné fi rek dina ne duma def 3 troisième mandat ko gagné ci ci ci maire yi gagné Macky dina coalition ñu ne ko nag il faut nga wax ñu nag ñu xool nag suñu avenir parti Macky il faut ñu xool suñu avenir parti sinon da sacrifier bu boba nak Macky Sall dina réorganiser APR créer numéro 2 après da di dem Sonko lolu moy force mais bo leen xullee ba mu satch élection yi nak laa dëkk bi day tàkk voilà gars yi maa ngi couper parce que sama sama sama ki mo jeex suma couper coupé live bi du ko sauvé merci quand même like abonnez-vous, abonné vous suba ñu continuer waxtaan aussi merci beaucoup.